أن هدانا الله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا وحبيبنا محمد عليه السلام وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد mbokk yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu ñu ngi leen di tatagal di ñaan yàlla yal nañu yàlla barkeelal jataay bi ñu fas yéene leen a jàngal euh, tomb yi nga xam ne insha allah suñu jataayu tey bi moom la ëmb insha allah dinañu jox Thierno euh, Gueye kàddug mu war a teeru gan yi en tant que ku mbooloo mi ginnaaw loolu dinañu jox oustaz Sidi Xaaliloo moom mi nga xam ni moo war a jiite jataay bi mu présenté ñu ki nga xam ni moo ñu war a defal waxtaanu tey wi ñetteelu tomb bi incha allah dinañu jox oustaz Mouhammad Ahmad Lo al imam mu demal ñu ci waxtaan wi nga xam ni ñun ñëpp xam nañu euh, tomb bi lan la bu ci accès wala kiy présenté muxaadar bi dina leen fàttali tomb waxtaan wi di ci des insha allah dinañu jox kenn mu jël kàddu ci turu imam yi ak association yi nga xam ni teew nañu fi su kàddu yooyu paree nag dinañu ubbi benn jataay jox ko mbooloo mi ñi nga xam ni bëgg nañ cee jël kàddu ñu mën a joxe seeni xalaat moo xam ay laaj la moo xam ay yokk la xam ngeen ni nag mbooloo mi ni mu toll su fekkente ni ni kenn ku nekk bëgg naa wax ba doyal amaana bu ñaari nit waxee mu jeex waaye kenn ku nekk mu sédd moroomam bu ñu agsee foofu ba nga xam ni dina tënk waxam ngir mën a xajal moroomam ay moroomam ñu mën a bokk ci waxtaan yi su kàddu yooyu pare incha allah dinañu am kàddu gu ñu jëmalewaat ci ñi teew ñépp vraiment muy kàddu yi gërëm ndax kenn ku ñëw fii rekk am na loo bàyyi am na loo def am na loo bàyyi ci ay yitte am na loo def ci ay coono kon ñooñu jar nañu jottali ay ngërëm mu bokk ci nag insha allah daarul istiqaama mi nga xam ni seen mudir seen rais moom mooy ki ñuy defal waxtaan wi tey su kàddu yee pare nag ñu jox kàddu gi ki nga xam ni moo jiite lujnatu daawa muy kuréel bi yore wàllu woote ci daarul istiqaama moom mooy kii jeexal jataay bi incha allah ñu daal ñaan pour tàggale ko kon loolu mooy programme incha allah bu defee ngir bañ a guddal lool dañuy jël kàddu gi rek jox ko euh, jox ko maam Thierno. mu ñëw teeru ay ganam tatagal leen bismillah alhamdulilah rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala asalaamu aleykum wa rahmatullah wa barakatuhu alhamdulilah mbokk yi ñu ngi sant borom bi subhanahu wa taala di tatagal mbokk yi nga xam ne yépp teew nañ fi moo xam ñu jóge ci biir dëkk bi la wala ñu jóge ci bitub dëkk bi ñu ngi leen di masawu yi ñu daj ba ñëw di leen ñaanal borom bi subhanahu wa taala leen lépp ay tiyaaba ginnaaw loolu ngi sant mbokk yi nga xam ne ñoom lañ jàppalanteel ci liggéey bii ba yëg ci fii ci ba jëmmal li incha allah muy daaru istiqaama ca gën a kaw walla ba ca gën a suufee ñu ngi am cant ak ngërëm joyal ko ci ñoom euh, ginnaaw loolu xam naa ngir ba a guddal lu mel ni mbokk yi féete ci barab bii ñu nekk muy jàkk ji euh, ñu ngi leen di sant di leen gërëm ci jàppandal gi nga xam ni moo am ci barab bi fii ñu toog ab xalxa dafiy faral di am suba ak ngoon démb bi ñu ñëwee waxtaan ak ñoom ustaas bi ko jiite mi ngi ci biir mbooloo mi dafa ci ànd ak ci xamal ñu ni incha allah dinañu ñëw bokk si ci jataay bi loolu dëgg-dëgg lu kawe la fi ñun ñu ngi leen ci gërëm di leen sant di leen ñaanal borom subhanahu wa taala doon leen baraka ginnaaw loolu xam naa mbokk yi nga xam ne jàppalante ak ñun ci biir liggéey bi ndax xam naa buñ ko bàyyi woon ak man dong ragal naa du jëmm noonu jëmmoo muy xale yi nga xam ne àndal nag ñoom ca njalbeen ba fi ñu toll nii am na ñoo xam ne ci barab bii lañu ñu fanaan bu ko defee daal ñu ngi sant borom bi subhanahu wa taala ci jàppandal googu yépp di leen ñaanal yàlla subhanahu wa taala dolli leen tawfiq ñoom ñépp ci gàttal foofu lañuy ñuy yemale yi sant ak ngërëm la ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di sant yàlla subhanahu wa taala ci jàppandal gi am ba liggéey bi jàppandee nii mu jàppandee wa sallallahu ala nabina muhammadin wa alihi wa sahbihi rabbil alamin والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحابته أجمعين ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين أما بعد وفي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ginnaaw bi ñu sante borom bi subhanahu wa taala julli ci sang bi sallallahu alayhi wa nuyu leen nuyu lislaam bi ñu sof suñu kàddu ci ñaari kàddu yi jiitu ci gërëm mbooleem ñi nga xam ne wuy nañu woote yàlla bi di ñaan borom bi subhanahu wa taala seen tànki dikk ak seen tànki dellu yépp yal na ko yàlla def muy góob tuyaaba ak faru bàkkaar li ñu fi tax a te moo ji déglu kàddug yàlla yal na nu yàlla wërsëgal ñu déglu ko ci tey te buñ ko dégloo itam ñu jàpp ko bu baax a baax a baax buñ fi jógee itam mu feeñ ci suñuy cër ci jëfe gi maa ngi doon laaj léegi Oustaz Babacar ba xam ndax dinañu jiital njàngum alxuraan comme ni ñu ko faral ni ñu ko tàmmee nga xam ne loolu du rekk mbirum protocole waaye dafa di itam <clears throat> waaye ubbee nañu jataay yi sant yàlla ak julli ci Moustapha sallallahu alayhi wa loolu defe naa ne ak alxuraan ji nga xam ne lu wóor mooy dina ñëw ci biir waxtaan wi euh, dina mën a xëy na jël place loolu man ak sama kàddu ci jotaay bi moo waroon doon présenté leen kii defal waxtaan bu fekkee am na ci Sénégal ak ci Afrique ak sax ci al alamul islaami ku ñu mën a wax ne ganiyun an taarifi docteur Ahmed Lo lay doon wala dina ci bokk xanaa ci aada rek dañuy wax ci lu gàtt ñu ne docteur Ahmed Mohamed Lo euh, mu ngi bokk ci ñi nga xam ne laata ñuy génn di jàng bitim réew fekkoon na ñu mënoon a sax toog tàmbali di jàngale ndax fekkoon na mu nekk àllaama dëgg laata muy génn mokkal alquran mokkal yu rafet jàng xam-xam yi fi doon jàng nii yëpp te xam-xam yooyu rek moom la jàng ci bitti différence bi rek mooy xëy na fii mën ngaa jàng ba jeexal te du la jox aw këyit mu ngi tudd diplôme la nettali nag nga formaliser loolu am ay bouteillam ne yàlla xam na ne mënoon naa bañ a génn te du tee mu nekk géej gi mu nekk ci yàlla xam-xam waaye comme xam-xam moom du doy dangam sang ba la borom bi subhanahu wa taala waxoon ne ko foo toll del wax ne yàlla dolli ma xam-xam te génn ci jëmm boppam di jàng def ixtikaak dajeeg ak yeneen xeet loolu ci boppam di jàng loolu tax ba mu demee itam jariñu na bu baax ci dem bi mu dem yàggul al madina al munawara dara ci jaamia bu mag boobu nga xam ne xeet yépp fa daje mu nekk fa alam nekk fa alam nekk ku ñu xam nekk xam ne boolam ñoo fa dajawoon di jàng jóge ci réew yu wuute dañ doon dem ci moom ci biir jaamia bi ak ci bitti jaamia bi ci mu dëkk mbooleem sénégalais yi daan jóge fii Sénégal di dem di jeex ci faratay ak danañ jëriñu ci kaset yi mu daan def foofu di ko préparé xale yi di ci yee xujaaj baytullahi alxaram xëy na jamono boobu fi technique wu communication àgg léegi àgg fa woon waaye fa mu toll woon moom ci boppam yemul woon rek ci di jokkoo ak yooyu waaye mu tàggat ci boppam man dama koy fekk këram muy saisiral boppam ay textes yu muy préparé ay thèses yu muy préparé ak leneen booba ñu baree baree bare xamaguñu woon matière boobu ñuy wax informatique mu jekk woon ko lool am yitte ci lépp waaye itam yàggoon a bàyyi xel ci ne dafa taxani te aw say lu mu rëy rëy rëy àll ba nga doon taxani taxu ko war a jóg da nga ko war a yóbbu ca kër ya mu waroon a xam ne dafa war a ñëw fii mu waajal ko bu baax non seulement ñëw fi nekk fii wootekat ci ci réew mi waaye itam ci gox bi du rek ci gox bi du rek ci Afrique xëy na plus tard am na kuréel bu judd bu boole mbooleem borom xam-xam yi ñu ràññee ci Afrique te mu nekk ci ponk bu mag waaye lu jiitu kuréel boobu sax doon na dox yooyu ne tànk ay tukkeem ak i toogam yépp njàngale la buy dox jàngalekat mooy dox bu toogee jàngalekat mooy moo toog bëgguñoo sori ci di wax ci ay mbiram ndax sax ñu bañ a laal gannaawam waaye dañuy wax lii pour ndaw ñi waxuñu ñun màgget ñi nga xam ne cinquième âge lañu waaye ndaw ñi xam ne am nañu royuwaay ci wàllu yitte parce que toujours nit dafay soxla ku muy joxañ dafay soxla buy dem di joxañ ne fële laa jëm moom royukaay la ci ndaw ñi ay jaar-jaaram ndaw yi war nañ ko gëstu pour roy ko ci ginnaaw loolu itam ñu sargal ñi nga xam ne yow woote daje bii di conférence bi di ay ay ndaw ñoom tamit ñu farlu ñu sawar ci dundal lislaam bi ci lu mu gën a yaatoo ak lu mu gën a fóote eh, di ko doxe di ko waxe boo leen gisee mu feeñ ci seen lépp ñooñu te suñu rakk suñu jarbaat bu ñu wax Thierno Gueye jiite ko nga xam ne jiite dafa mënul ñàkk waaye wóor na ma ne moom bu sañoon du jiite lii ndax ay borom xam-xam rek ñoo ànd ak moom ci liggéey bi ay borom mi daara ay sëriñ daara ay nit ñoo xam ne ñoom tamit seen guddi ak seen bëccëg mooy liggéey mooy mooy lii ci la nekk waaye itam comme ndaw moom moo gën a sawar buñ la jiitalee waxuñu nga jiitu waaye ñu jiital la mooy rek nekkal suñuy tànk nekkal suñuy loxo di la yónni ngay dem ñëw loolu mooy mandarga ye jiite cerno waaye du leneen bu ko defee ñooñu itam ñu ñaanal leen yàlla may leen gudd fan yokk seen xam-xam daaw bi ñu nekk yàlla barkeel ko mu tasaaroo bu loolu passé thème bi ñuy waxtaane xam ngeen ko moo di jub xocc yan jeexit la war a bàyyi ci nit ki waaye yan jeexit na war a bàyyi ci société bi parce que société bi dara lu dul ay nit ñu dajee mu ngi mel ne benn moteur rek ay pièces yu ñu tarki bi ñu boole la pièces yooyu bu ci nekk benn bu ci nekk bu melee na mu war a mel bu ñu dajee rek nga am moteur bu dëgër nga am moteur bu mën a mën a dox li tax ñu defar ko société bi kon ay jëmm la jëmm yooyu istiqaama bu feeñee ci ñoom la shakk ci ne dana feeñ ci société bi te li ñuy wut lépp ci àddina ak alaxira paasewul loolu muy istiqaama bi ñuy ñaan ci suratul fatiha waxtu wu ñuy julli ihdina siraatal mustaqim istiqaama boobu jub googu dëgg la tudde nañ ko mbooloo ngir barkeeloo ko ngir mu nekk ab junju ci loolu la ñuy wax war waxtaane tey ci al istiqaama asaaruha fi l fardi wal mujtama ñu daldi jox docteur mu daldi ñëw ak ñun ci thème bi euh, tafadal insha allah mashkuran wa majura bismillahi rahmani rahim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 alhamdulilah noo ngi nuyu mboole mbokk yi nga xam ne ñoo fi teew di jiital ci nuyoo bi kilifa yi nga xam ne ñoo teewe jataay bi te jiite mbooloo di nuyu suñu mbokk maam Thierno ak mboolem ñi nga xam ne ñoo ànd ak moom di nuyu it mboolem ñi fi teew di nuyu it waa daarul istiqaama yi nga xam ne ñoom ñooy jàppalanteeg ñoom ngir amal bis bi di sant di nuyu njiitul jotaay bi moom itam ci ab taxawaayam bu rafet ci liggéey bi fii ci Thiès waaye ustaas dii di wax dëgg yàlla xamewuma ko ci ak ëppal waaye tey nag naa ëppal ci présentation bi nga xam ne moom la doon def euh, yàlla xam ne ne melokaan yi mu doon melal su waxoon noonu ba àggal mel ne ku nuy nattu ne xool leen kan ngeen jàpp ne warees na koo mën a jël teg ko foofu man damay yëkkati ku mel ne Cheikh Mouhamed Nasiruddin al Albani wala Cheikh Abdul Aziz Ibn Baz wala teg ko foofa te nun ñi xam suñ bopp xam nañ ne sore nañ lool ak ñooña kon benn ndonga lan jàppe suñ bopp ci biir donga yi boo xam ne dañuy jàng dañuy jàng ak di jéem a jàngale kon loolu ci la nekk di ñaan sunu borom tabaraka wa mu jàppale nu ci loolu eh, jataay bu mel ni bii muy ak dimbalante gu dox diggante ay daara yuy yëngu ci woote bi ñu bokk di organiser di taxawal lu mel ni ab bind la ci nun ci ne mbooloo yu tàqalikoo yi liggéey ci biir cadre sunna tàqalikoo wuñ ci ak soree waaye ay tur la su ko defee turi daara yi war nañoo mën a bokk di liggéey ci biir terrain bi di jàppalante li feeg seenu delluwaay mooy alquran ak sunna kon kooku bind la boo xam ne bu mat a bàyyi xel la war nañoo mën a dem ba daara yu mag yi fi nekk yépp te yëngu ci sunna ñu yëg ne jenn daara la su ñuy organiser dara ñépp ànd organiser ko lu ñuy def ci mbégte ñépp ànd bég ca suñu amee safaan it ñépp ànd naqarlu ko kon loolu mooy dundiinu alquran ak sunna wi nga xam ne yéen ñëpp insha allahu taala ci ngeen di yëngu e, tomb waxtaan wi nag muy al istiqaama wa athaaruha ala wal mujtama e, l xam naa li may tàmbalee mbokk yi ñoo tànn thème bi waaye li may tàmbalee mooy muy yëgle ne amul benn jote amul rapport diggante thème bii ñu war a waxtaane ak daara ji ñuy tudde daarul istiqaama xëy na loola lu daje la waaye amul amul luñ jote lu dul ne xanaa ña nekk ca daarul istiqaama dañuy jéem góor góorgóorlu ak di ñaan yàlla ndax ñu mel melokaani listiqaama eh, tomb la nag listiqaama comme ni ko ustaas yi di waxe léegi jazaahullahu xeer mooy jub pocc buñ ko doon wax ci wolof noonu la waaye nag danañ ko jéem a xamle tomb bi jéem nañ koo jàngat ci juróomi tomb yoo xam ne benn bu ci ne ci jéem a jaar Euh, donte ni ma déggee programme bi ak waxtu waxtu wi li ci jot a dem bari na kon duñ jéem a guddal waaye dana jéem a jaar ci juróomi tomb yooyu bi ci jëkk mooy xaqiqatul istiqaama ñu jéem xam mooy lan ñaareel bi mooy arkaanul istiqaama yi nga xam ne ngir nit ki nekk ku jub xocc faawu juróomi ponk yooyu daje ci aw doxalinam ba ca tegu mooy ñetteel ba mooy wasailul istiqaama yan mooy jumtukaay yoo xam ne nit ki moom lay jëfandikoo ngir mën a nekk ku jub e, ba ca tegu moo di aathaarul istiqaama muy jeexit yi nga xam ne impact yi nga xam ne njub daf koy indi ci nit ki di ko indi itam ci askan wi juróomeel ba te mooy bu mujj ba mooy muawiqaatul istiqaama yi nga xam ne ñooy gàllankoor nit ki nag ba mën a dox digganteem ak listiqaama ñu daal tàmbali rek ci bu njëkk bi baatub listiqaama ci arab boo ko doon delloo ci cosaanam day dellu ci xaaf ak waaw ak miim maanaam xawama buñ ko doon màndaxe it ci peese yow mi jàng dara ci arab ñu ngi koy peese istifaala maanaam kon istiqwaama la doonoon waaye xaraf wi ñu tudde xarfu illa muy arafu ràgg su fekkee ne lu sukkoon da ko jiit lu sukkoon tegu ca kooka faaw dañ koy wëlbati mu nekk weneen araf xam nga dama gën a istiq xaaf gi ak sukkoon la maanaam maska néeg la waaw gi ñëw ak alif tegu ca alif ga kon maska néeg la yor kon ñaari sukkoon moo ko séq kon ñu daal di koy wëlbati ku mu soppi ak waaw ga soppi ko ak laam au lieu muy nekk istiqwaama ñu ne istiqaama moo tax ca euh, alwaafiya ci nazmu shaafi shaafiya daf ne wa tuxdafu al aynu min al iqaama lissaakinaini misla al istiqaama maanaam xarafu ayin ba xataf la ko tudde waaye qalbu la ndax dindi nañ alif ayin ga dëgg la istifaala da isti istifaala rek moo fa des lissaakinayni ndax sukkoon gi jiitu ak gi ca tegu loolu kàddu yu gàtt la yoo xam ne maa ngi ciy wax ak ña nga xam ne ñu jot a jàng tuuti la maanaam nag moo di al ictidaal wal istiwa maanaam ci luxa buñ ne lii mustaqim la mooy loo xam ne lu jub la waaye lu ànd dal la itam moo tax ca lisaanul arab nee na wa aqamtu shay'a wa qawwamtuhu fa qaama bi maana istaqaama wal istiqaamatu ictidaalu shay'i wa istiwaa'uhu loolu ci lisaanul arab la nekk nee na daal boo nee taxawal naa dara ba mu taxaw nee na loolu li muy firi mooy kon mujj na nekk lu jub mujj na nekk lu ànd ak dal eh, safaanu loolu nag mooy li ñuy wax al muwaj wala al munarif al awaju wal inxiraaf mooy safaanu listiqaama moo tax sunu borom tabaraka wa taala bi muy melal téeréem bi daf ne alhamdulillahi alladi anzala ala abdihi alkitaaba walam yajcal lahu iwaja qayiman iwajan qayiman qayiman mooy mustaqiman mu boole foofu ñaari melokaan yoo xam ne benn bu ci ne day wone ne alquran lu dëng jegewu ko fenn ndax doyoon na rek mu ne walam yajal lahu iwajan maanaam ab téere la boo xam ne amul dëng-dëng waaye mu teg ca ne qayiman kon loolu balaaxa bu xóot la moo tax dañuy wax ne léeg-léeg nit ki mën naa jub wala dara mën naa jub ba ñëpp nangu ne kii jub na waaye boo gëstoo gëstu bu xóot nag gis dëng-dëng la tax ñu ne lu jub la mooy jub daa gën a bari ca na muy doxe te it nit ki kat noonu la mel nit ki jub noonu la mel waaye boo gëstoo gëstu bu xóot nag gis ca ay dëng-dëng alquran nag daf laa wax ne dafa jub ba noppi boo gëstoo yi doo gis dëng-dëng moo tax mu boole ñaar yépp muy nafyul iwaj ak isbaatul istiqaama kon mbir a ngi foofu moo xam ne bu ma ta xel la ci ne moom loolu lay firi ci wàllu ci wàllu luga moo tax mu ne diinan qiyaman ci diine lislaam kon qiyam ci boppam day firi istiqaama ak dalika diinul qayim dana nekk qiyam dana nekk qayim dana nekk eh, istiqaama yooyu yëpp benn baat boobu lay firi dalika diinul qayim al al mustaqim lay firi moo tax kaabu eh, ba muy way def ne fahum sarafuukum xiina jurtum an ilhuda bi asyaafihim xatta istaqamtum ala alqiyam xatta staqamtum ala alqiyam yaani ala sirat almustaqim maanaam ba ngeen dëggee seeni jaasi lañ yor jubbanti leen ba ngeen ne xocc kon ci kàllaam ak luxa boo ko xoolee baatu arab li muy tuddal istiqaama soreewul ak maanaami li muy firi ci li ñu tudde istilaax ndax ci wàllu istilaax eh, bu ñuy définir l'istiqaama xam nga ne boroom xam-xami mantiq yi dañuy définir maanaam taxrif bu ñu koy def définition danañ ko def ci anam yu bari léeg-léeg dañuy taarif bi nidd léeg-léeg ñu def taarif bi didd léeg-léeg ñu def taarif bil wasf taarif yooyu yëpp nag am na ci listiqaama taarif nañ ko ci nidd nidd buñ ko waxee mooy nga bëgg a dara nga bëgg koo leeral nga indi leneen lu mel noonu nga ne lii mooy lii te fekk nit ñi xam nañ loola moom lu mu doon ñu daal di xam lii lu mu borom bi tabaraka eh, moo tax borom eh, xam-xami lu ko yi nee nañ boo waxee ne ana wa fulaanun ala aljaadda nee na ibaratun an al istiqamati wa sadaat loolu indi na ko ci téere bi ñuy wax al mughrib eh, fi tartib al mughrib ki ko def mooy al xawaarismi nee na boo ne ana wa fulaanun maag diw sàngam daal alal jaar danoo bokk jaar ca yoon wu jub wa nee li muy firi mooy listiqaama kon baata ngoog al jaadda wala sadaat yoo xam ne bu ci nekk day firi listiqaama kooku taarifun bi nit dañoo jël beneen boo xam ne moom moom ñoo bokk maanaa ñu fireeku ko euh, ku ñuy wax an-Nasafi ci téere bu ñuy wax tilbatu talaba nee na war rushdu war rashaadu al istiqaamatu fi al tariq kooku itam taarifun bi nidd nee na rushdu muy njub wa rashaadu ak jubal nee loolu lépp li muy firi mooy istiqaama bu nga jub jaar ci aw yoon te bañ a jàdd kon définir nañ ko ci indi beneen vocabulaire boo xam ne day bokk ak moom lu muy firi ñu firee ko ko définir nañ ko it ci xamle ab safaanam ndax léeg-léeg xamle dara euh, ngir mu mën a leer faaw ñu faaw ñu indi contraire ba kon taarifun bi dëdd lañ koy tuddee moo tax euh, ci almufradaat raaxibu al asfahaani daf ne azzayru almaylu an al istiqaama assayru nee na jeng mooy nga bàyyi fa listiqaama jëm feneen maanaam boo bàyyee njub daal kon jëm nga ci jeng kon bi mu bëggee xamle njub foofu dafa xamle lan mooy dëng kon dañ koo xamle foofu ci ab safaanam waykat ba nee na wa bi diddiha tatamayazu l ashyaa lenn lu nekk cib safaanam ca lay gën a mën a leere zabidi ci taajul arus nee na aslul fisqi alxuruju an al istiqaama kon cosaanul jéng dëgg dëgg dëgg ak kàccoor nee na mooy nga génn ci listiqaama kon kooku moom itam définir na ko te contraire bi la jël mooy safaan ba e, loolu lépp ci biir xamle ko ci istilaax la mooy lan dëgg dëgg dëgg ngir mënees koo dund waaye eh, inda taxqiq dañuy gis ne listiqaama ci boppam ñaari marxala la am ñaari marxala marxala bu njëkk bi mooy étape bu njëkk bi suluku sabili rachadi wa sadaat wa tawasut wal ictidaal sóobu ci yoon wi nga xam ne mooy yoonu njub yoonu njub wi nga xam ne ëpp li yeesul loolu mooy yoonu alquran ak sunna kon étape bu njëkk bi mooy sóobu ci yoonu alquran ak sunna ñaareelu étape bi muy almarxala thaniya mooy luzumu dalika sabil wal istimraaru alayhi xatta almamaat ñaareelu étape bi mooy yoon woowee nga sóobu nga sax ca nag ba keroog ngay wuy kooku nag mooy al istiqaamatu taamma yàlla na ko may listiqaama njub gi nga xam ne nit ka ba mu sóoboo àggal dafa continuer nekk ca loola dara mënu koo soppi mënee su koo delloo gannaaw mënee su koo yàqal mu nekk ca loola ba wuy ji boroomam kooku mooy al istiqaamatu wa biha yakunu al beneen istiqaama bu dul booba baaxul boobu rek moo baax loolu moo tax ay alxuraan yi ñëw yépp di wax ci ci foofu la gën a jëm maanaam ci sax ga sabaat moo tax borom bi tabaraka wa taala dafa ne inna alladina inna alladina qaalu rabbuna allahu xam nga ñooñu dugg nañ ci diine ji sóobu nañ waaye summa staqaamu foofu li nga koy firee mooy ñu sax ca loola tatanazzalu alayhim almalaikatu allaa taxaafu wala taxzanu wa abshiru biljannati allati kuntum tuwaadun kon foofu doyloo wuñ ne rabbuna allah waaye dañoo sax ca loola lépp loo xam ne rabbuna allahu daf koy indi muy ashadu an la ilaha illa allah wa ashadu anna muhammad rasulullah jaamu yàlla ya def lu baax yooyu yépp mooy suubu ga waaye nag sax ga nag kooku mooy summa staqaamu ndax gis nga baatu summa la jëfandikoo lu jëkk la nga xam ne mooy ngëm gaa gee ca ànd la ca tegu nag mooy summa gannaaw ba loola amee ñu continuer sax ca loola loolu moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa alihi ibnu abdullahi saqafi dafa ñëw ci moom ne ko damaa bëgg daal nga jàngal ma loo xam ne dama koy jëfe te duma aaje woo ci may laajaat keneen dara maanaam loo xam ne dana ma doy xadis baa ngi ci saxiixu muslim yonent ne ko qul amantu billahi thumma istaqim ngoo diine lépp ngoo qul amantu billahi gëmal yàlla al imaanu billahi boo ko waxee imaan ngir mu mat juróom benn ponki imaan yépp dañuy daje imaanu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi uh, wal yawm al wal qadari xayrihi wa sharrihi kon arkaanul imaan yépp day dugg arkaan yooyu ngir mu mat arkaanul islam day dugg si kon diine lépp a waaye nag bi nga ko defee ba jël diine lépp nangu jël engagement ne d'accord naa ci diine ji lépp jël naa ko summa staqim kon mooy tolloo képp inna alladina qaalu rabbuna allah summa staqaamu mooy qul amantu billahi summa staqim moo tax alqurtubi rahimahullah bi muy firi laaye jooju inna alladina qaalu rabbuna allahu summa staqaamu bi mu koy firi dafa indi wax yu bari ñii ne mooy lii ñii ne mooy lii ñii ne mooy lii bi mu jeexalee mu ne wa haadihi al aqwaalu wa in tadaaxalat fa talxiisuha ictadalu ala taacati illahi caqdan wa qawlan wa ficlan wa daamu ala dalik nee na doonte wax ya bari na summa staqaamu ja lu muy firi nee na lu wax ja bari bari mooy i'tadalu mooy jub nañ jub nañ ci lan nee na ci topp yàlla topp yàlla goo xam ne dafa dellu ci pas-pas dellu ci wax dellu ci jëf ba noppi wëlbati ko nag nee na wadaamu ala dalik ba noppee ñu sax ci loolu kon kooku mooy définition ba dëgg dëgg moo koy xamle loolu moo tax suñ bëggoon a définir ci benn taarif boo xam ne dañuy yaakaar ne dana ko làmboo dañuy wax ne mulaazamatu siraati almustaqim fi alaqaaidi wal ibaadaati wal axlaaqi maa riaayati xaddi alictidaali wa dawaami ala tilka alxaal taqoo ak siraatul mustaqim ci pas-pas ya ak ca jaamu yàlla ya ak ca jikko ya ànd ak sàmmoonteeg bañ a ëpp nag bañ a yées itam xaddul ictidaal tawassut ànd ak nag bu loolu lépp sottee wa dawaamu ala tilka al xaal saxoo loola ba keroog ngay wuy ji sa borom am na taabir bu gàtt boo xam ne ci taarif listiqaama la ñëw na ci fi zilaal al quran mu ne fa listiqaamatu al ictidaalu wal mudiyu ala nahji doon al xiraaf taarif bu gàtt la waaye bu joxe maanaa la moo di al ictidaal jub ba noppi bañ a ëpp bañ a yées wal mudiyu ala nahj wéy doon inxiraaf su deful inxiraaf kon kon mu daawama bi day daal ñëw wax jooju yëpp bu jeexee dañuy xam ne kon xamle listiqaama muy njub ñi mën a xam lu mu doon moo di dangay ngay sóobu yoonu jub ba noppi sax ca loolu daal moo koy gàttal moo tax euh, dellu gannaaw baaxut kenn ci boroom xam-xam yu mag yi dañ koo laaj taarikul istiqaama ki bàyyi njub ndax loolu yàlla àdduna ci mu ne ok sunu boroom tabaraka wa taala wax na ci wala takunu kallati naqadat ghazlaha min ba'di quwatin ankaasa bu mel mukk ne ka xam ne daf doon ràbb xëy ca ngoon di ràbb ay létt yum xarañe di ko defar di ko defar ba ñëpp di ko soow mu wëlbati ko firiwaat ko ba lépp yàqu mu ne bu leen mel noona kon kooka mooy ka jub ba ñëpp ne waajaa ngi mu wëlbati ko ñu fekk ko lu yelloowut moom la leen mel noona kon kooku mooy dellu gannaaw yàlla na ci yàlla musal kon defe naa ne tomb bu njëkk bi rek mooy boobu moo di njub daal ngir ñu xam lu mu doon mooy nit ki na jaar ci alquran ak sunna ba noppi jàpp ca nag dara mën ko caa bañ a jëlee comme ni ko yonente bi alayhi salaatu wasalaam addu alayha yóbbu leen ko fa gën a jafe fa ngeen di denc la gën a foor ci yéen denc leen ko foofa te jàpp ca loola ba keroog ngeen di mujj seen bopp arkaanul istiqaama mooy ñaareelu tomb bi am na juróomi dama ko talxiis waaye al imaam ibnu al qayim leeral na ko lool ci madaariju saalikiin tomb ba ca jëkk nee na mooy ifraadu almacbuudi bil iraadati min al afcaali wal aqwaali wal niyaati wa huwa al ixlaas nee na mooy nga wéetal sunu boroom tabaraka wa taala ci sa jubluwaay maqaasid yi iraadaat yi nga wéetal sa boroom ci sa jubluwaay ci say jëf ak say wax ak say yéene maanaam la ngay def sa borom tabaraka wa taala rek tax nee na kooku mooy ixlaas kooku mooy tomb bu njëkk bi nga xam ne mënee su ta am ni istiqaama te amoo yàlla day tax ngay def waaye su sa jëf yépp juboon te fekk la ne ca suuf mooy am na leneen lu ko lal lu dul yàlla kooku nekkul mustaqim kon tomb bu njëkk baamu ñaareel ba nee na wuquu al aamali wa xusuluha wafqa al amri sharciyi lal bidiyi wa huwa mutaabaatu sunna nee na ñaareel ba mooy jëf ji ngay jëf mu doon ak jaamu yàlla nga di ci wut tuyaaba mu ñëw dëppoog la sharia santaane waaye waxul mu ñëw dëppoog la biddaa andi lu am solo la ci li doomu aadama yi dund tey ndax nit ñi dañoo def ne lépp lu baax rek lu xel rafetlu lu ne rek baax na moo tax diine ji lu nekk ñambaas nañ ko ci ci ci bokkul ngir jàpp ne nit war naa mën a participer ci diine ji andi ci loo xam ne eh, góorgóorlu boppam la lu ca bokkul woon déedéet loola mooy biddaa kon dañoo bëgg ñaareelu tomb bi bépp jaamu yàlla booy def moo xam jaamu yàlla googu da koy fas ci sa xol wala da koy jëf mu doon jaamu yàlla gu teg teg bëtam muy ay julli wala ay oor wala ay bépp xeetu jaamu yàlla wala mu doon ci xeetu jëf leen yi na ñëw wafqal amri shari lal bidii na dëppoog li a wax ni lii la waaye bu mu la biddaa wax ne lii la mu teg ca mu ne wa huwa mutaabaatu sunna kon fa tomb bu njëkk ci istiqaama ci njub mooy nga sellal yàlla dong tax ñaareel ba mooy sa jaamu yàlla dëppoo ak sunna ñetteel ba nag nee na al al amalu wal ijtihaadu fi taati bi bi qadri wusihi bi qadri wusihi maanaam du doy rek nga góorgóorlu ba sellal doy ba góorgóorlu ne gépp jaamu yàlla gu may def danaa fexe ba mu tegu ci sunna waaye nag da war a góorgóorlu ci jaamu yàlla yi itam nag da war a góorgóorlu ci jaamu yàlla yi buntub naafile yi ñu ngi fi yeneen yi yëf a ngi fi yu bare bare bari yoo xam ne yu la war la rafetul jikku yi leen yi xeeti yoo xam ne ijtihaad moo koy indil nit ak sori yi nga xam ne yépp yu bon la kooku mooy ñetteelu marxala bi ñeenteel bi nee moo fi l amali bayna al xuluwi wa tafrid nee na ànd ak loolu lépp nag nga doon ku yem bañ a ëppal ba jéggi dayo ba teengal sa diine ba kenn du ko mën a dékku waaye itam nga bañ a suufe nag ba dellu gannaaw kon nekk ci digg bi tawasut boobu nga xam ne sunu borom tabaraka wa taala moom la melale xeet wi wa kadalika jaalnaakum ummatan wasatan li takunu shuhadaa ala annaasi wa yakuna arrasulu alaykum shahida melokaan boobu la bëgg ngeen mel noonu kon kooku mooy ñeenteelu étape bi juróomeel ba nag nee na astabatu ala dalik muy loola nag ba faw juróomi ponk yoo xam ne bu dajee kon nit ka mustaqim la dadi nag juróomi yooyu dafay aajowoo mujahadatu nafs ak coono bu metti la du lu woyof de ndax saa boo xamee ne góorgóorlu na ba amal tawxid muy ixlaas amal mutaabaa muy nangoo topp yonent bi yàlla rek tax muy def kooka moom mi ngi ci listiqaama ci marxala bu njëkk ba muy dugg na sóobu na léegi wa baqiyat almujahadatu fi adaa alfaraidi fi awqaatiha wa fi nawafili wa tatawuaat su ko defee beneen marxalaay daal di ñëwaat bi nga góorgóorlu ba sóobu buntub joxe farata ci rafetal ko ak def ko ci ay waxtoom buntub nangoo góorgóorlu ci naafile yi nga xam ne lu bare bari ci nit ñi góorgóorlu nañ waaye sàggan nañ ci nag surtout rawatina nag julli guddi jekki ba guddi nga dagg say nelaw ya nga doon def yépp julli ci sulusul axir min al leyl tàllal say loxo ñaan sa boroom ñaanal xeetul islaam jooy ci sa kanam boroom loola li feeg nit ka àggut foofa nag am na lu bari lu mu dese buntub tatawuaat yi woor koor yi ngàtt ngay lu gàtt gàtt ñetti fan ci weer wi muy ayaamul biid woor alxames woor altene lu mel noonu jéem caa góorgóorlu tàggat ci sa bopp foofu marxala la boo xam ne ci listiqaama ku ko bàyyi ku ko bàyyi sa yeneen yi ci des yépp ci ci tiitaange lay nekk ndax kat naafile yi ak li ñu tudde taxawoo dafa doon kaaraange goo xam ne mooy aar farata yi maanaam ab làkk la wala ab miir boo xam ne dañ koo samp mu wër farata yi saa bu dajji koo lu ñëw di menacer ci kaw farata yi su boobaa su fekkee ma nga nag lu ci ci naafile yi lay yem du ko mën a du ko mën a yàq te saa boo xamee ne dem na nag ba tamakkun ci yooyu yépp góorgóorlu na ba mi ngi ixlaas mi ngi tënku ci sunna mi ngi góorgóorlu ci naafila yi farata yi mi ngi koy def ci waxtoom baqiyatil mujahadatu fi tawassuti wal i'tidaal su boobaa nag la fa des mooy régler sa bopp nag ba doo ëpp ndax nit ki kat léeg-léeg mu ëpp foofu yàq la mu doon def ndax ëpp ga la muy andi mooy jékki-jékki yées te doo ko yëg thermomètre bi daa war a yem soo xamee ne yëkkati ko na ba ëpp rek xamal ne fa mu jëm mooy jékki-jékki yéesaat waaye pour bi dana jafe yàlla xam na ne gis naan ay nit ñun xam ñoo xam ne dañ leen a xamoon ci góorgóorlu ci diine ba mu yàgg ñuy gën a tàngal di gën a tàngal di dem di dem ba mu yàgg ñu jàpp ne ab jullit amatul ci kaw suuf ba mu yàgg nga dajeeg ñoom ñu nekk ay fasixoon ci mbedd def yoo xam ne ñu nit ñu xam ñoo xam ne demoon nañ ba nekk ay doaat yi leen ci doaat yi nga xam ne aalamul islam yi xam nañ leen ñu dem ba nit ñi di leen gis ñu dugg cinéma di toog ànd ak nit ñi comme ça yëpp seen vidéo yi mi ngi ci internet beeg yëpp ñu xam leen nga xam ne soo ko waxee nit danaan kii du moom am na ci koo xam ne daax bu mag boo xam ne moom moom moom dañ koo xam personnellement ci ñi gënoon tar ci woote ci la bokk mais fi mu mujj mooy di ànd ak xale yu góor yi sol yoo xam ne kenn xamul yum doon dem cinéma dem ci football dem ci keneen yàlla na yàlla mosal ci lu mel noonu kon daal boobu benn marxala la muy yem bañ a ëpp bañ yées doon na loo xam ne lu mënta ñàkk la moo tax kenn ci asalafu saalix nee na maa amara allahu bi amrin illa wa li shaytaani fiihi nazghataan yàlla musta digle ndigal lu dul seytaane am na ca ñaari pexe ñaari pexe pour yàq ko imma ila tafritin wa imma ila mujaawaza benn mu jéemal la nga bàyyi ndigal yooyu bañ koo def wala soo koy def mu fexe ba nga ëppal mu ne wala yubaali bi ayihima zafara wala zafira wala yubaali bi ayihima zafira nee na seytaane bu mu ci am rek baax na pour moom soo yéesalee baax na soo ëppalee it baax na ndax xam na ne ëppal nga fa mu jëm mooy yéesal su su ci yooyu nga xam ne fexe na ba yem def na yi jiitu yépp mu des tombub nag al mujahadatu fi l mudawamati wal istimrar loolee nag mu jéem caa sax nag ba faw te bañ caa jóg loolu nag moom ab liggéey bu rëy la moo tax euh, ibnu ajiba ci téeréem bi ñuy wax albaxrul madid bi muy wasfu listiqaama nee na wa hiya shaamilatun fi alaqaaidi wa fi alacmaali walqiyaami bi wazaif alcibadat min gayri tafritin wala ifraat après mu ne wa hiya fi gaayati alusri wa hiya fi gaayati alusri bi mu waxee ne njub dafay dem ci pas-pas yi dem ci jëf yi muy jaamu yàlla yi bañ ëppal bañ yées looloo ngi ci biir bi mu noppee daf ne day mbir mi dul yomb de lu jafe la nee na lu jafe la ndax tàggat la aajo ki ko tàggat na ba tàmm ko ay cëram miin ko xolam neex ci mu ubbiku ci kooka amatul jafe-jafe bu mel noonu loolu moo tax jafe googu moo tax karaama ci boppam Euh, listiqaama ci boppam tiraa ngay sunu borom tabaraka wa bu ñuy wax karamaatul awliya euh, karaama yi nga xam ne wàllu yooyu dañ koo am ñi di ko gis man koo lim bi ci gën a rëy mooy karaamatul istiqaama mën a jub jub ba wàccu sharia fenn boobu mooy bi gën a jafe moo tax kat li nit ñi jàpp ne mooy ay karaama muy muy jommale wala ngay naaw wala ngay dox ci ndox wala xool nit mu faatu wala xeeti jommale yi loola soree na lool ak karaam am na ku ñu nettali ci boroom xam-xam yu jëkk yi ñu ne dafa am kuñ kuy wax ne ku wàlli mag la ndax kooku moom bu àndee ki àndandoom sax bu àggee ci géej gi wala dex gi day kii rek ne leen bisimilah nañ dem ne na mbooloo mi topp ci moom dañuy dox ci kaw ndox mi ba jéggi ko duñu aajowoo gaal duñu woo dara bi mu ko déggee mu ne daf koy seet si bi mu dikkee ñi nee nañ al imam abu xanifa ñii di ko askane al imam shafii bi mu dikkee fekk ko fi mu gis benn béréb boo xam ne ci ëtt bi am na daal ku fay julli xam nga palaasu jullikaay yi boo ko xoolee fa nit koy maasale di fa jullee ko da koy xam bi mu dikkee gis fa mu doon ñu ne ko moom de dafa génn nekk fi mu ne ku julli fii ñu ne ko moom la mu ne leen bu ñëwee nee leen ko wilaaye gi muy woote du dëgg waaw mu ñëw ñu ne ñu ne ko yow yaay kan mu wax leen ko bi mu ñëwee ñu wax ko ko mu ne ah kooku de imaam la te boroom xam-xam bu mag la danaa ko laaji li mu wax ko teg bi mu ñëwee mu ne ko fi ko teg damaa xam ne wàlliwu tol ne yow ci bi ñuy wax kooka du juyoog sunna te fii nga jullee damaa gis ne sa loxo yi bi nga ko tegee ci suuf sa baaraam yi dafa tàqalikoo te yonent bi sallallahu alayhi bu ma bi sujjóot ay baaraamam daf koy boole nii lay mel bi ma gisee baaraam yi tàqalikoo ci suuf nag laa xam ne kii du ko tënku ci sunna nee na mu tuub ci kanamam jooy wëlbati ko ànd ak imaam boobu diir bu yàgg ngir jàng sunna ci moom ànd ak ne kooka demoon na ba ñëpp defe ne kii moom mooy xutbu eh, zaman te nañ koy waxe kon eh, mbir la moo xam ne karaama bi gën a rëy mooy loolu ibnu taymiya nee na inna al karamata luzumu inna al karamata luzumu karaama dëgg-dëgg mooy nga man taq ci listiqaama ci njub mu ne wa inna allaha lam yukrim abdahu bi karamatin azama min muwaafaqatihi fi ma yuxibuhu wa yardaahu wa huwa taatuhu wa taatu rasulihi sal allahu alayhi waalihi wa sallam nee na yàlla amul benn jaam boo xam ne jox la ko karaama tiraanga joo xam ne moo gën a màgg wala mu tol ne fexe ba jaam boobu dëppoog li yàlla bëgg te loolu mooy topp yàlla ak topp yonentam kon kooku mooy karaama bu mag kon bunt la boo xam ne ubbuñu ko kenn ku nekk mën na ko sóobu ci tawfiq sunu borom tabaraka wa taala loolu moo tax eh, borom bi tabaraka wa taala dég digal yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ak i àndandoom muy mboolem ñi gëm yàlla mu digal leen listiqaama ci diine ñu sax ci diine ji te jub bi tabaraka wa taala nee ko fastaqim kama umirta wa man taaba maak wala tatxaw innahu bima taamaluuna basir fastaqim kama umirta jubal nekk ci listiqaama ni ñu la ko digale kama umirta nag baat la bu xóot a xóot a xóot moo di nit ki ak njubam du num ko neexe waaye nañ ko ko digale la ni ko ko borom bi tabaraka wa taala digale du na ko ko keneen digale itam waaye ni ko ko borom bi tabaraka wa taala digale mu ne waman taaba maaka ak képp koo xam ne dugg na ci diini ji ànd ak yow kon nun ñi ñëpp noo ci biir loolu nun ñi ñëpp nee nu fastaqim kama umirta comme niñ ko wax yonente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam wala kooku moo won euh, jege gi nga xam ne listiqaama ki xas ba def ko danger bi mu nekk mooy danger ëppal boo tuul parce ki sàmmonte gi yooyu yëpp yëpp li gën a jafe ci mbiram mooy mu régler boppam ba du ëpp moo tax wala tatxaw wa tuxyaan mujaawazatul xadd kon bul génn moom xaddul ictidaal mukk fexeel ba yem ci digg bi bul ëpp waaye nag bul dellu gannaaw mukk ba yées aaya bi aaya bu diis la fastaqim kama umir moo tax Abdullah ibn Abbas radiallahu anhuma nee na ma nazala ala rasulillahi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam aayatun hiya ashaddu wala ashaqu min hadihi al aaya amul aaya bu wàcc ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam bu gën a diis bu gën a tiis aaya bi bu ko gën a diis wala mu gën koo tiis Abdullah ibn Abbas mooy wax mu ne loolu moo tax Abu Bakar as-Siddiq radiyallahu taala anhu dafa ñëw ci yonente bi alayhi salaatu wasalaam ne ko day laqad asraa ilayka shaybu saxaaba yi ridwanullahi alayhim ajmain dañoo bëggoon yonente bi sallallahu alayhi wa sallam eh, xam ngeen yon yonente bi sallallahu alayhi wa sallam bi amee juróom-benn fukki la tàmbali di bi jaaw ñi gis bi jaaw yi tàmbali ñëw ci moom Abu Bakar ne fa yow yonente bi yàlla bi bi jaaw bi daa mel ne ni mu ñëwee gaaw na shayb mu ne ko shayyabatni huudun wa axawaatuha mu ne ko suuratu huud ci boppam moom bi jaawloo abdullah ibne abbas mu ne du saar yépp a tax muy wax de waaye li tax muy wax mooy fastaqim kama umirt baat boobu jubal ni ñu la ko digale nee baat boobu moo bi jaawloo yonent bi sallallahu alayhi te képp ku xam ne ndigal loolu jëm si na ci sa kaw ak fam tolloog nam mel ak lam laaj kooko war na laa mën a bi kon loolu mooy ponk yi nga xam ne mënuñoo ñàkk ngir istiqaama am ñetteel ba wasailu taxqiqil istiqaama fan la nit ki war a mën a jaar nag ba borom bi tabaraka wa baaxe ko ndax mu am istiqaama yàlla na ko yàlla defal tomb ba ci jiitu moo di taqwallahi wa muraqabatuhu ragal yàlla ak bàyyi ko xel ragal yàlla ak bàyyi ko xel wa man yattaqillaha yahdi qalbahu képp ku ragal yàlla yàlla moo lay gindil sa xol la nga doon ñaan naan ihdina siraatal ragal yàlla moo la koy jox wa man yattaqillah yahdi qalbahu kon jullit bi ragal yàlla warta mën a génn ci ab xol mooy fu mu toll fu ne ragal yàlla gi àgg na ci lu muy def lu ne mu xool la ci yàlla santaane bu dee jaamu yàlla mu xool ndax lii muy def yàlla ko santaane mu door koo def su ko santaane ak lu ne koy def luñ bari bari ak lu ñu am am ay daraja mu bàyyi koog ñoom foofu la toll li muy bëgg a def ndax dagan na wala daganut bala koo lekk wala mu dugal ko ci alalam ndax lu dagan la wala lu daganut daganut ak lu mu ko jekku jekku nga xam ne man na koo jël te àdduna ak li ci biiram du ko yëg loola foofa la koy teg bu ko laal kon loolu ragal yàlla dafa am ay melokaan yoo xam ne ñoo koy feeñal yenn yi ci jaamu yàlla gi la jëm yeneen yi des ci jëflante gi la jëm ñaareel bi moo di adduaa bil hidaaya ñaan nag sha'nuhu azim ñaan mbiram dafa màgg te su fekkee ne listiqaama muy njub foofu la toll ci lislaam nga xam ne mooy lépp kon jullit bi jaadu na mu di ko ñaan lu bari ginnaaw yërmaande suñu borom tabaraka wa dafa yaatu nag moo tax bàyyiwut ñi naan la bis bu ne na nga ko ñaan ñetti yoon wala boo xëyee ñaan ko bu ngoonee na ko ñaan comme askar yi waaye da koo jël dugalal la ko ci fatiha mi nga xam ne bis bu ne da nga julli yow jullit nag laay waxal bis bu ne da nga julli ay yoon te boo jullee da nga jàng fatiha julli gu ne da ci jàng fatiha ay yoon te boo ko ci jàngee da nga ne ihdina sirat al mustaqim ihdina sirat al mustaqim saa boo ko waxee yaa ngi ñaan sunu borom tabaraka wa taala gindi la ci sirat al mustaqim moom mi nga xam ne mooy istiqaama mooy yoon jub wi kon ñaan doon na loo xam ne lu mënta ñàkk la ci moo tax yonente bi alayhi salaatu wasalaam ànd ak ne moom mooy moom daf daan wax ne yaa muqallibal qulub yow mi nga xam ne yaay wëlbati xol yi sabbit qalbi ala diinik maa ngi lay ñaan nga saxal sama xol ci sa diini mu bañ a jàng jëm fenn kon loolu mooy listiqaama ñetteel ba moo di al iqbaalu ala al qur'aani al karimi qiraatan wa tadabburan wa amalan jubluwaat nag téere bi yàlla bi al qur'aan jàng ko jàngiinu tadabbur jàngiinu seetlu seetlu bu baax a baax a baax dellu ci téere yi tafsir yi jëfandikoo li la yàlla may ci xam-xam nga settantal aaya sunu borom tabaraka wa xool kéemaanam yi yàlla xam ne ne lislaam ji ay njëriñ ngi ci yoo xam ne bés bu nekk nga turle lu bees loo xam ne da xam ne ji diine bëgg dem rek la am benn yahuud bu mag boo xam ne médecin bu mag mag boo xam ne ci kàngam yu mag yi la mu tuub kooku chercheur la boo xam ne dundam gépp daf ko jeexal ci gëstu ci wàllu ay idée nag yi ñuy wax nga xam ne lu aju ci xam-xamu jigéen ak biiram ak lu ci aju loolu lay gëstu lan la waaji trouvé ba tax mu tuub idda ji lislaam joxe ne daal jigéen bi buñ ko fasee na toog ñetti weer door a sëyaat ak keneen waa ji dafa gëstu gis ne am na lu ñu tudde basma xam naa dafay tolloog imprence yi ñuy wax noonu su fekkee ne nee na nit ki sëy na ak jigéen même bu ëmbul am na basma bu ca des boo xam ne ci góor gi lay jóge mu ngi ci biiram loolu mu def ay gëstoom gis ne su toogee lu mat weer sulus bi day dem day effacé su toogee ñaari weer beneen sulus bi day dem su toogee quatre li tàmbalee quatre ba quatre vingt dix jours juróom-ñett fukk ba ci juróom-ñeent fukki bis ci la lool di sete wecc lu dul loolu waa ji nee na ndaw si mën naa bañ a ëmb de mën naa tax am wenn weer gis reegalam ñu ne ëmbul ñu dem may ko keneen kooku ñëw sëy moom nee na am na lu bokk ca waaju jëkk ja loo xam ne mi ngi ci doom ji moo tax mu ne bi mu gëstoo gis na ne ñu bare bari ci ñi nga xam ne dañoo bàyyi seen bopp noonu di dem wala sàmm ñu idda bi mu defee ay gëstoom ci ay nit yoo xam ne da leen jël def analyse am gis na ne kañ leen di askanele ñenn ñi quarante pour cent la ca seen bàyyi am ñi ci des soixante pour cent ñenn ñi quatre vingt pour cent waaye ka kam jëkkoon a am na lam ca am loo xam ne dix pour cent vingt pour cent ba trente pour cent ba quarante pour cent te nga xam ne ñooñu juru leen li ko gën a tiis ba tax mu tuub nee na bi mu turee xam-xam boobu mu delsi gëstu jabaram jabari boppam gis ne jabaram ci boppam am na ay basamaat yu nekk ci biir moom ndekete moom daf ko fa bàyyi di dem ci yeneen i góor mu del si ay doomam yi mu jur ñetti doom yi amal am ak moom gis ne ñaar ñi sax far moom amu ca dara far kenn ñeneen a leen jur genn doom ji rek mooy koo xam ne am na ca soixante pour cent yoo xam ne moom moom mooy mooy mooy mooy bàyyam mu del si nag gëstu gis ne lislaam daf ne jigéen ji buñ ko fasee na toog ñetti weer keneen door a sëy moom mu ne ji diine mënta doon diine joo diine yi la ci loolu la tuub kon diine ji settantal ko ñi ko gën a yeyoo mooy borom xam-xam yi ak jàngkat yi kon fuñ toll fu nekk war nañu jiim a gëstu lu mel noon di ko xool di ko jàngat kon tadabburul quran bokk na ci liy dimbali nit ki ci mu mën mu mën sax inna hada al quran yahdi lillati hi aqwam alquran ji dafa doon téere boo xam ne la gën a jub fa la jëmale nit ñi maanaam lañ naan fa mu la jëlee euh, fa mu la jëmee ko gën alquran mooy loola moom dong mooy loo xam ne fa mu la jëlee fa mu la jëmee ko gën ñeenteel ba moo di kasratu dikr bari nag tudd yàlla yonente bi sallallahu alayhi wa sallam kaana yadkuru allaha fi kulli axyaanihi amul benn situation boo xam ne yonente bi alayhi salaatu wasalaam daana ca nekk te tudd yàlla benn mu doon tudd ko ci làmmiñam benn mu nekk tudd ko ci fàttaliku ko su fekkee béréb ñu ko doon tuddee la te xol bi ngir mu mën a am dal gi ñuy wut ala bi dikrillahi tatma innul qulub la sunu borom tabaraka wa taala tudd yàlla googu moo mën a tax ab xol dal moo tax am xel dal crise yéeg bopp yu ubbi nit ñi di dund ak yépp buñ ci tudd suñu borom tabaraka wa taala ak fàttaliku ko yooyu nit ñi danañ xam ne lu tekkiwul dara danañ ci mën a mucc juróomeel ba al ihtimaamu bil aqidati wa tasfiyatiha min alchawaib ittewoo mbirum pas-pas jullit yi nañu ittewoo mbirum pas-pas muy mbirum imaan mbirum gëm yàlla bëgg ab yonentam ak topp ko wattandiku bokkaale lii mbokki julli di diine lislaam baas la boo xam ne ci la taxaw lu loolu diine ji day màbbata nit ñi duñ ko kon pas-pas muy imaan doon na loo xam jiitu dara door a am nit ki door a mën a sax te it boobu day dimbali nit ki ba mu mën a am listiqaama mu mën a jub moo tax borom bi tabaraka wa taala daf ne yuthabitu llahu alladina amanu bilqawli thabiti fi fi l axira ñi nga xam ne ñoo gëm yàlla seen pas-pas wér képp la yàlla di may sabaat fii ci àdduna ëllëg ca àllaaxira seenu lay nekk aw lay wu taxaw ca kanam malaayika yi leen di laaj yàlla nu yàlla boole ci ñoom juróom-benneel ba moo di qiraatu siyari al anbiyaai wa salafi saalihiina wa qisasihim jàng nag jaar-jaari yonent yi rawatina sunu yonent sallallahu alayhi wa sallam ak nit ñu baax ñi nga xam ne dañoo jaaroon ci siraatul mustaqim ci njub ak lañu daj ca loolee ñu doon def ci ay coono ngir bëgg a jàpp ci diine yàlla ji ak bañ cee dellu gannaaw loola il faut nit ki di ko jàng wala muy déglu ñi di ko jàngale mu di ca jariñu ngir mu mën a doon koo xam ne ku sax lay doon ku dëgër lay doon moo tax même yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yàlla daf ko nettali qisasul anbiya yonent yi ko jiitu woon da ko ko doon jox lu tax ngir moom mu mën a dëgër xam ne lu ko dal rek am na keneen kum daloon moo tax mu ne wa kullan naqussu alayka min anbaai rusuli maa nusabitu bihi fuaadak dan lay nettali li jaaroon ci yonent yi fi jaaroon la dañ la koy nettali ngir loola mën la dëgëral yow ngir mu mën a sax maanaam mën a am istimraariya ci li nga xam ne moom la ko yàlla jox juróom-ñaareel ba moo di al iltifaafu xawla al ulamaai wa talabati al ilmi sharci nangoo delluwaat ci sunuy xam-xam nangoo delluwaat ci sunuy boroomi xam-xam nangoo toog wër leen déglu leen jariñu ci ñoom ak sàkkukati xam-xam yi ah loolu kat xër ci duruus yi njàng mi daje boroom xam-xam yi laaj leen jariñu ci ñoom loolu ci lii dimbali ci sax ci la bokk lu dul loolu rek li ñuy wax nangi faawo mooy am nangi faawo mooy indi saaraan ndax bu fekkee ne nit ki day dem te amatul ab sàmm maanaam amul ku koy jaaj ji naan ko du noonu muy dellu gannaaw moom day dem rek day def lum lu mu dem rek xeeb liñ naan géwél bu repee ci xare lu mu lu mu jiin xeeb lu mel noonu day am na ñoo xam ne ci xam day dem ba dal leen doon lu tàmbali jàng demagul fenn yër tuuti daal defe ne moom àgg na foo xam ne ni ma dégg gaa yi waxe moom mooy li ci nekk ci téere yi rek damay dem ci téere yi liir daal eh, mën a def ni ñëpp loolu mooy indi njaaxum koo xam ne doo ko yëg nee nañ waaja dafa dem eh, boroom xam-xamu mantiq mu ñëw ci moom ne ko yow loo jàngi woon mu ne ko mantiq de laa jàng ba xóot ci lool nag mu ne ko mantiq moom mooy lan mu ne ko de dinaa la ci jox misaal ndax euh, seen kër am na xaj mu ne ko waaw ah, waaw kon de li muy tekki mooy alal a nga fa mu ne ko waaw alal a nga fa de ndax mu ne ko bu ko boobu alal nekkul xaj bu koy garde bu ngeen ko ajowoo mu ne ko kon alal a nga fa mu ne ko ah ndax kon de alal bu fa nekkee kon sa baay boroom alal la ndax boroom kër gi moo war a moom alal mu ne ko oxu kay sama baay kay borom alal la mu ne ko kon de sa yaay ci boppam jigéen ju texe ci këram la mu ne ko waaw dëgg la mu ne ko xoolal li dox diggante muqaddima bu njëkk bi ak fan yem maanaam ab xaj am na ci kër gi ak sa yaay jigéen ju texe la ne ko mantiq noonu lay tëdde dañ lay jox ab muqaddima kooka résultat ba mën naa demaat demaat demaat ba da defe ne sax lu jëkk la ak lu mujj la jotewuñ dara mu dégg benn xaayida boobu daan defe ne mën na mantiq mu ñëw fekk man ña toog seenu garam place ci pénc ma mu ne leen man de damaa jàng mantiq te bëgg leen koo jàngal ñu ne ko bisimilah mu ne ndaxi xaj am na ci seen kër ñu ne ko ah déedéet mu ne leen kon de seen yaay tëdd ñu jóg dal ci kaw léeg-léeg ci ci xam-xam yàkkamti da dégg boroom xam-xam mu toxal dara wala nga yër dara ci téere daal di defe ne peeg nga li tax ñi war a wax ci loolu ak fañ ko war a waxee nuñ ko war a waxee yooyu yëpp xàmmee woo ko te yooyu ñuy jàngale nga ñëw defa tell fi béréb yàq la nga doon def lépp fab kon delluwaat ci seeni boroom xam-xam jàng ci xam-xam jàng ci ñoom ab yar ak teggiin Euh, al imam al asram da doon wax na al imam ahmad ibnu hanbal da daan toog ci jataayam ñeenti junni kaala toog di déglu imam ahmad maanaam ñeenti junni nit ñu kaalaw waaye nee na xamsu mi a rek ngay gis ci seen loxo ñu yor ay kayit ak i bindukaay di bind ña ca des ñu jàng ba am xam-xam lañ ñoom dañoo ñëw di jàng si al hadi wa sant dañoo ñëw ci kanamam di jàng nu muy def système bi mu jëflanteeg nit ñi ab yaram tegginam doxalinam ak nit ñi loola moo leen fa indi loola suñ demee ba suñ biirub yar ak suñ éducation ni ñuy doxalee suñuy ndaw amatut ci biir maanaam ndaw ñi dañoo yem ci jàng xaraf yi te jàngatuñ teggin yi su boobaa lu bari ci daaw bi day yàqu kon al iltifaafu al iltifaafu al iltifaafu xawla al ulama mënta ñàkk faaw nu dellu nag suñu borom xam-xam jëriñu ci ñoom juróom-ñetteel ba ixtiyaaru rufqati saaliha tànn àndandoo yu baax yàlla xam ne bari na ku yàqu ku def inxiraaf bàyyi listiqaama muy bàyyi njub te fekk la la ko teg mooy àndandoo kon bul ànd mukk ak ku baaxul àndandoo des koy tànn bul àndandoo kudul koo xam ne dangaa yaakaar ne kii moo la tane nga mën a jariñu ci moom juróom-ñeenteel ba al amalu saalixa min birri alwalidain wa silati rahim wa rahmati bilfuqara ila axir am na ay jëf yu baax yu teey yoo xam ne borom bi tabaraka wa taala da ciy jaare def nit ki taw defal nit ki tawfiq yooyu bokk na ci rafetal jëmale ci ay ñaari waajur say waajur ak nu ñu mën a mel wan leen teggin rafetal jëme ci ñoom loolu ci yi la yàlla yërëme may la tawfiq ci la bokk jokk ak bokk rafetal sa diggante ak say bokk loolu ci la bokk yërëm koo xam ne yaa ko tane yaa ko tane ci xam-xam yaa ko tane ci mën-mën yaa ko tane ci xam am-am loo ko tane nga jàppale ko ca loola loolu ci li yàlla di yërëme e, nit ci la bokk irhamu man fi l ardi yarhamkum man fi sama su ngeen yërëmee ñi nekk ci suuf ka nekk ca asamaan dana leen yërëm muy sunu borom tabaraka wa e, fukkeel ba moo di alsabru wa adamu l istijaal muñ te bañ a yàkkamti muñ te bañ a yàkkamti dégg diine point net borom bi wa taala ci suratul asr asri inna al insana la fi xusr illa alladina amanu wa amilu salihat wa tawasaw bil xaq wa tawasaw bis sabr kon dénkante muñ ci boppam bokk na ci programme jullit yi fu ñu fu ne dañ ko war di dénk seen bopp di ko dénk seen ko jëfandikoo muñ su amatul rek ci tegu su amul rek inxiraaf am ndax ku jaar ci siraatul mustaqim kum mën a doon da nga yoo xam ne muñ képp moo la ci mën a bàyyi soo muñatul rek xamal ne moom la ca tegu mooy bàyyi istiqaama ñëw na njub doo ca mën a nekk te mu ñëw innama yuwaffa saabiruna ajrahum bi gayri xisaab kon kooku lu jar lu jar sàkku la eh, fukkeel baag benn moo di addaawatu ila allahi wal amru bil maaruf wa nahi an il woote ci yoonu yàlla bi foo gis lu baax nga yokk ko mu jëm kanam foo gis lu bon loo mën nga def ko ci mu jëm gannaaw nga di ko def loolu bokk na ci li borom bi tabaraka wa taala di defal nit ki tawfiqi listiqaama ba ca tegu moo di maarifatu albaatil wa ahlihi wa adam aliqtiraari bihi mahma balaga min altugyaani wa lu dul dëgg gannaaw boo xamee dëgg ba jàpp ci jaadu na nga xam lépp lu dul dëgg mu wóor la ne yoonu caaxaan ak yoonu tappale ak yoonu dëng nga xam yaqiin ne yoon wu bon la loolu dafa war a bokkaale ci li ngay xam mu wóor la ne nag ña ko sóobu lu ñu bari bari bari ci àdduna ak façon doomu aadama yi ñu mën a doon ak nuñ mën a mel xamal rek ñu lu baaxul lay mën a doon laa yaxurannaka taqallubu alladina kafaru fi lbilaad yéefar yi lu nekk am nañ ko lu nekk ngi ci loxo fu nekk ña nga fay dem bul yaakaar ne yàlla da leen defal xéewal da leen a istidraaj ñu gindi ko bul gis bukk ku la wala ku mbooloo mu dajaloo fi bërëb ñu ne ah, foofa ne loolu njub la njub mën naa bari te fekk ko de kon bu la mbooloo jaaxal bu la leneen jaaxal la lay jaaxal daal ba man laa convaincre nga topp ko na doon loo xam ne daa jaar ci njub alquran sunna amul leneen qul laa yastawi alxabiisu wa waxal ne li baaxul ak li baax duñ yem lu bon ak lu baax duñ yem mukk li bon dem na ba tasaaroo ba day mel àdduna lu bon doo fi nekk téewul la baaxoon moom lu baax rek maanaam àdduna ak li ci biiram buñ dëngoon ba kenn doo nga des fi doon ku jubit kooku mooy ku ko kooku mooy ku ko bari ga du tax mukk nit ña ñu ne ñu bari nangu lii ba tax mu day wëlbati ko doon lu baax da fekk lu bon woon loolu mënta baax mënta sotti fukkeel baak ñett te booy bu mujj bi ci moyens yi nga xam ne yàlla na yàlla jàppandalal nu mën koo jëfandikoo moo di maarifatu dunia ala xaqiqatiha xam adduna mi dëgg dëgg dëgg mooy kan ñàkk solo gim ñàkk solo daarul xuruur kërug wor dëgg dëgg dëgg mooy àdduna mooy kër bu ñàkk solo bi ndax kër goo xam ne dañ la fee indi ngir lenn muy jaamu yàlla wa ma xalaqtul jinna wal insa illa li yabudun muy ab yan boo xam ne yow looloo fi waaye nga war a fàggu wërsëg woo xam ne moom ngay dundee wërsëg woowu dañ ne la ko waaye yàlla warlu na ko moom yàlla warlu na mu doon ab ñe nattu ci doomu aadama yi ba tax ñu bari la leen fi indi woon ñu fàtte ko ngir li nga xam ne yàlla warlu na ko kon kooku mooy wari àdduna muy kër goo xam ne da nga fay ñëw yàlla jox la jumtuwaay ay moyens ngay dégg di gis yor am xel yor kàttan yim lay def loo yépp doon loo xam ne loo man la ànd ak ne moo la moom bu ko neexoon mu sant la loo xam ne mënoo ko xoola rek borom bi tabaraka wa taala nim nim la bindee xoola julli dalaa digal nga julli xoola ni mu ko jàpp ndale ci yow su fekkoon ne nit dana jàdd rek nga xam ne amut ay ay ay tenqoog ay yëf yu mën a sukkeeg yu ba nopp ñu ne ko jullil kooku fu jëm waaye booy seetlu niñ la bindee sa loxo yi ni muy lema ni ngay sukkee day mel ni sax par julli moo tax ñu bind la sax kon euh, borom bi tabaraka wa taala bu fekkee ne jaamu yàlla googu moo tax mu indi la fi jàpp ndalal ko ci lépp loo xam ne loo mënut la mu ne la loola bokkut ci li ma la sant kon kooku jàpp ndalal na la jub kon adduna ak li ci biiram jarul ngay jàng ba di fa bàyyi jub adduna ak li ci biiram jarul ndax béréb la boo xam ne da nga fee ñëw na nga fi ñëwee woon xamoo kenn tàgguwu la bu ñu la fi indi bu ñu la fi jëlee kenn du la tàggu maanaam dee dafa am ay yëf yu ci lëmu yoo xam ne nit ki ñàkk xam gi mu ko ñàkk a xam war naa tax mu góorgóorlu kañ la kenn xamul kenn xamul fan la kenn xamul lay faatu nan la kenn xamul nan lay faatu kon dee na muy dee ak fan lay dee ak kañ lay dee kenn nun ñëpp a ci yem la yonente ba sallallahu alayhi wa sallam tontu woon jibril ba mu ñëwee di ko laaj mata saa mu ne ko ma masulu anha bi alama min asaail waaye ñett yi ma tudd ña koy laaj ak ñañ koy laaj kenn tanewu ci su morom kenn xamul kañ ngay dee wala fañ nga dee kañ ngay la fan la kon nag yooyu yi la sa borom lëmal mu ne ci sa kanam di ñëw te bis bu ne nag am nga yàqin ci ne moom yaa ngi koy gën a jege moom bis bu ne am nga yàqin ci ne yaa gën a jege te adduna moomu li ci biiram lépp boo ko amoon ba dajale ko bis bu àgsee rek jeex na amatoo dara yow amatul lañ lay askane montar bi nga takkoon sax du taxaw day continuer di dox keneen ñëw takk muy dox di dem kon kër gu ñàkk solo la boo xam ne jarul adduna li ci biiram jarul nit ki dellu gannaaw ci loo xam ne lu toll ne tarfatul ayni la ci listiqaamaam ci njubam bëkk dem rek noo ngi jàng xadis boo xam ne ci saxiixu muslim yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax ne ka gën a suufe daraja ci ajjana mooy koo xam ne dañ koy jox adduna ak li ci biiram fukki yoon adduna ak li ci biiram fukki yoon ka gën a suufle daraja ah waay waay wax dëgg yàlla kon nit ki kay bu amee xel rek góorgóorlu ca loola te xam ne lii moom du lu am solo e, ñeenteel ba moo di athaaru listiqaama ala alfardi wal mujtama jeexit impact yi nga xam ne njub dana ko am ci aw askan su fekkee ne jub nañ euh, nekkuma fi nag di séparer li naan lii fard lay jëriñ maanaam individu lay jëriñ lii société bi lay jëriñ waaye damaa boole lépp rek parce que luy jëriñ société bi lu nekk société bi ay ay benn benn nit ko composé lu leen di jàng rek lay mën a doon ba ca jëkk moo di al amnu fi dunia wal axira lam lay jëkk a boo jubee mooy am nga sécurité adduna ak alaxira ak dal borom bi tabaraka wa taala moo ko wax inna alladina qaalu rabbuna allahu thumma istaqaamu fala xawfun alayhim wala hum yaxzanuun ñi gëm yàlla jaar ci siraatul mustaqim ba noppi sax ca loola maanaam am listiqaama ñooñu nee na amatuñ lu ñuy ragal tey ak ëllëg kon seen xel dal yàlla na yàlla boole ci ñooñu ñaareel ba al amnu fi adaai al xuquqi wal amaanaat société bi nga xam ne dem nañ ba nit ñi jub dem nañ ba nit ñi jub xeli xeli société ba day dal kenn ku ne xam nga ne sa àq foo mën a nekk da nga ci jot kenn du ko sànq parce que nit ñi jub doo nga fi nekk Omar ibn Abdul Aziz nee nañ la dem na ba jamono ña doon liggéey ci kaso yee nga xam ne tëji kaso moo doon seen liggéey ñi àndandoo attekat ya doon ay àndandoo dikk defi groupe ne ko noonu kat dañuy xëy toog rek te amatoon lu def ah, attekat ba ne kenn indiwul benn dossier pour ñu mën a atte parce que kenn tooñatul kéemaan yu doy waar am ci jamono Omar ibn Abdul Aziz ay shahadaat yoo xam ne boroomi xam-xam ci bopp ñoo ko shahadaat seen bopp maandu te bu amee ci njiit day dem ba lépp lu nekk ci kaw suuf day maandu moo tax dañ lay nett dem nañ ba gis till buy ay xar ñu ne benn nit a ko gis boo xam ne sax du nitu bokkul ci jullit yi waaye mu ne lii fu ngeen ko gisee xam leen ne am na ko maandu ku ne ci kaw suuf di àtte kon loolu doonul ay mbir yoo xam ne yu woyof la kon Euh, dalu xel ci sa bépp àq boo xam ne am nga ko mu wóor la ne dana ñëw loola mooy jëkk am ci société boobu moo tax xudayfatu bnu lyaman radiallahu taala anhu euh, xadis baa ngi ci saxiixu muslim nee na walaqad ataa alaya zamanun wa ma ubaali ayakum baayactu la in kaana musliman la yaruddannahu alaya diinuhu nee na dund naa jamono joo xam ne musuma faale kan laay jëflenteel ci jaay ak jënd kan laay lebal ak kan la ku ñëw ma jox la parce que wóor na ma ne su fekkee ab jullit la moom diineem mooy tax du lekk sama alal mu ne wala in kaana nasraaniyan aw yahudiyan la yaruddannahu alaya saaihi su fekkee ne du jullit itam responsable yi nga xam ne ñoo yore kaaraange di atte tamaanu su ma kooka tooñee ñoo ñaa koy delloosi waaye jullit ba nag diineem moo koy andi moom mooy tax du lekk sama alal waaye këdutub jullit su bëggoon a lekk sama alal it maandu gi nuy atte dana tax du ko lekk danañ ma jox sama àq mu ne lan wa amma al yawma fa ma kuntu li ubaayaa minkum illa fulanan wa fulana ci jamono xasayfatum liman mu ne tey nag jamono dem na ba duutuma jëflante kenn ku dul diw ak diw ku dul diw sàngam ak diw sàngam maanaam kon ñu maandu ña daal nañoo tàmbalee néew ci jamono joo xam ne Xusayfa bul Yamaan mi ngi dund kon suñ jamono yàlla moo xam nu mu mel kon daal su fekkee ne njub am na giñ bëgg lislaam bëgg nit ñi mel noonu su amee ci xeer bi kenn ku ne sa alal sa bakkan sa deret sa lépp loo xam ne lu la jege la sa xel da cay dal ci ne kenn du ko faagaagal ñetteel ba moo di al amnu fi l uqudi wal muamalaat ñi ngay jëflenteel ouvrier bi nga naan kaay ñawal ma ki nga naan kaay tabaxal ma ki nga naan kaay defaral ma sama lal bi ñooña société bi yépp seen xel day dal ci ñoom kaay defaral ma sama télévision bi sama rajo bi sama oto bi du ñëw mukk wekk benn pièce boo xam ne bu baax la teg ko fële monté la ci boo xam ne bu baaxul gataal mu yàqu am na mbokk moo xam ne waroon naa teew si ci conférence bi bi mu téléphoné nee na otoom dafa paan démb mu dem di ko defar lu ñu defal ko ci pièce boo xam ne dañoo dindi bu baax ba ca nekkoon defal ko ci bu baax looloo ko tey ñëw tey xoolal loolu ci société musiba kon dana dem ba lépp loo xam ne lu dox diggante nit ak nit la ci wàllu contrat daf koy wóor ne kooku dana sàmmoonte ak moom ca loolu mi ngi may ñawal daal nee naa ko ñawal ma lii loola lay ñaw bis la koy indi dana ko indi bis sàngam wala bis sàngam laa koy jël si dinaa ko jël si bis sàngam daf may tabaxal lii melokaan yi ma waxoon ne ci la koy tabax ci la koy tabax wax ko mu waxoon ne ci lay sotti ci lay sotti foofa du ma fa am problème waaye dem na ba nit ñi jàpp nañ ne buntu liggéeylu ci askan wi maanaam mënatu la ànd ak njub mënatu ànd ak njub dem nañ ba nit ki buy misaal sax ci wax ne amul alal wala muy wax ne diw amut alal danaan ko yow de da nga yeex a xulóokub maçon da nga yeex a xulóokub maçon maanaam amoo looy tabaxe la ko bëgg a wax kon jàpp nañ kii tabax lu faaw mu xuloo kii liggéey lu faaw mu xuloo ndax mel na ne njub googu dafa dem ba jóge foofu e, ñeenteel ba moo di intishaaru bazlil maarufi linnaasi wa kafful adaa askan wi nga xam ne dem nañ ba istiqaama am fa muy njub seen xel dal na ci ne lor ci loxo wala ci làmmiñ danañ mën a mucc ci loola kon loolu lu am solo eh, bokk na ca juróomeel ba moo di alzafaru bi mahabatillahi wa tawfiqihi ci njub ak istiqaama ak ñaan ko ci la borom bi tabaraka wa taala di bëgg jaam bi ci la koy maye tawfiq itam mën a sax ci njub boobu moo tax ihdina siraat almustaqim siraat alladina an'amta alayhim ñi nga xam ne yàlla daf leen a defal xéewal mooy ñoo ñi nga xam ne ñoo jaar ci siraat almustaqim juróom-benneel ba moo di raxadul aysh dund bu teey bu ànd ak dal dund bu neex te dagan te lew ci listiqaama lañ ko mën a amee moo tax borom bi tabaraka wa taala nee na walaw wa an law istaqaamu ala tariqati la asqayna la asqaynaahum maa an gadaqa wa an law istaqaamu ala tariqati la asqaynaahum maan gadaqa su fekkoon ne dañoo jub ci yoonu dëgg kon maa leen di sottil ndox sottil xéewal al imam ibnu jarir altabari bi mu koy firi daf ne wa an law istaqaama haulaai alqaasituuna ala tariqati alxaqi walistiqaamati la asqaynaahum maan gadaqa yaqulu la wassacna alayhim fi rizqi wa bassatnaahum fi dunya nee na li borom bi tabaraka wa taala wax foofu mooy ñu dëng ñii de suñ juboon danaa leen yaatalal seen wërsëg danaa leen jàpp ndalal seen adduna loolu mooy tolloog la borom bi tabaraka wa taala wax ne walaw annahum aqaamu altawrata wal injila wa ma unzila ilayhim min rabbihim la akaloo min fawqihim wa min taxti arjulihim mu su fekkoon ne jub jaar ci li yàlla wàcce ñu gëm tawraat jaar ci ñu gëm linjiil jaar ci ci seeni jamono wa ma unzila ilayhim ñi gëm alquran jaar ci li alquran wax te loolu mooy njub nee na la akaloo min fawqihim nee kon xéewal yi da leen di wàcc jóge kaw jóge suuf fenn ko ne lay jóge waxaat na ne walaw anna ahla alqura amanu wattaqaw la fataxna alayhim barakatin min asamaai wal ard ci dëkk yi gëm nañ taragal yàlla danañ leen ubbil ay barke yoo xam ne kaw ak suuf lay jóge loolu mooy tolloog rek la akaloo min fawqihim wa min taxti arjulihim kon xéewal fu ne la leen di jóge kooku euh, bokk na ci njëriñu listiqaama juróom-ñaareel ba moo ci njariñ yi muy jur mooy société bi nga xam ne njub am na fa société boobu day am doole ndax bennoo daf fay yomb kuy naxat kuy waru jëkk kuy jéem a yàqal ka ca des ak ku koy iñaaneeg ku koy xeex ak yépp day jógee ci société boobu su fa jógee nag kon benn bloc lañ léegi boo xam ne lépp lu jëm ci seen kanam ñoom ñëpp nga fay fekk waaye doo fa fekk kenn doo fa ñetteel ba moo di at tanmiyatu shamila xaytu yasuudu al amalu al jaad li binaai al insaan wa iqaamati al umraan su boobaa li ñu tuddee développement boo xam ne bu général la bu yaatu ci loolu la mën a amee ci njub ndax su boobaa ci tabax doomu aadama la ñuy tàmbalee ba mu doon la yàlla bëgg mu doon ko su ko defee ñu tabax adduna nag ak li nga fañ bëgg mu àgg fa mu mën a texeel doomu aadama waaye su tabax doomu aadama jiituwut ñu tabax adduna doomu aadama day tojaat adduna loolu la nit ñi dund fi mu nekk ci béréb yu bare bare ci kaw suuf kon boo gisee réew yu bare bare bari li leen gaar leen gaar gaar leen lu mel ni suñu réew mi tey nga xam ne kenn xamul ba ñu amee indépendance ak léegi juróom fukki at ak nàngam ba noppi ñi boole na ci réew yi gën a suufe te am réew yun tolloo loon ñu raw na bu yàgg dem seen yoon mooy wane ne tabax nit ci boppam dafa des dañ koo tabaxut nit ki dañ koo bàyyi rek boo gisee li fi nekk ci ger ger li fi nekk ci wuruj li fi nekk ci ay tappale li fi nekk ci ak tayeel ba noppi bëgg a tedd li fi nekk ci ak yàq yooyu yëpp bu dajee ci aw askan ba noppi nga ne bëgg mu jëm kanam kon da ngay yëg ne tabaxagoo dara ndax tabax ko nit kon ku bëgg a tabax réew mu développé tey jëm kanam nit ña ngay tabax góor ña ak jigéen ñi ngay def ci seen bopp ñu yëg ne aw nit lañ yoo xam ne dañoo war a am jom dañoo war a doon nit ñu baax nit ñu jub dañoo war a liggéey dañoo war a gëm ne ku liggéeyul doo tedd dañoo war a gëm ne ku liggéeyul doo tedd te dañoo war a gëm ne alali jaambur moomu moomoo ko loo moomul moomoo ko alali askan wi moomoo ko luñ la dénk lu nekk maandate nga ca war yàlla xam na ne booy jàng siiratu saabiqiin muy nit ñu baax ñu jiitu woon lañ doon dund ci ak maandu akub sàmm akub wattandiku ak li nit ñi di dund tey da ngay yëg ne doomu aadama ci boppam dafa aaja tabax bis ni ko tey eh, juróomeel ba te mooy bu mujj bi insha allah moo di muawiqaatul istiqaama yi nga xam ne mooy tax nag nit ki mu dox digganteem ak mu mën a jub mu mën a jaar ci listiqaama ba noppi sax ca ba ca jëkk mooy daaful imaan ngëm yàlla gu doyadi wa qillatul wara ñàkk a sàmm wa adamul xawfi min min allah ak ñàkk ragal yàlla yooyu suñ dajee mooy tax nit mën a sànni ay cëram lu ko neex mu def bu dee wax mën naa jëw ku ko neex mën naa xas ku ko neex mën naa jël xalimaam saaga ku ko neex lu ko neex mën naa lekk alxalaalu indahu ma xalla fi lyad lu dugg ci loxoom rek jàpp na ne lu lew la ku mel noonu li ñu tudde iman moo amatul fi neen moo tax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ca ndénkaan la buñ ko fàtte qul amantu billahi thumma istaqim ngëm gi li feeg mi ngi fi di dund di màgg njub ga daf koy a nekk waaye ngëm gi saa boo feebal na wala mu dellu gannaaw wala mu lax loola day feeñ ci listiqaama bi ci ñàkk gee jub moo tax ci xadis boobu ca riwaaya ba euh, sufyaan ibni abdullahi euh, bi ko yonente bi alayhi salaatu ne ko qul amantu billahi billahi Euh, tirmidi bi mu génnee xadis bi riwaayaam sufyaan daf ne ko yaa rasulallah maa axwafu maa taxaafu alay dëgg la dégg dégg naa dénkaane li ma dégg mooy neel gëm naa yàlla ba noppi sax ca loola lan mooy li nga xam ne moom nga gën ragal mu gaar ma maanaam sama lor fan la war ma mën a gën fa axada bi lisaani nafsihi wa qaala haada nee na yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jàpp ci aw làmmiñam ne ko lii laa gën a ragal ci yow maanaam jullit bi kon sàmm aw làmmiñam doon na lu munta ñàkk ci moom ndax làmmiñ dafa doon koo xam ne yi mën a jóge ci moom ci ay bàkkaar dafa bari wax lu dul dëgg ci ay bàkkaaram la bokk jëw ci la bokk rambaaj ci la bokk daanaka lu bon lu muy def lu nekk làmmiñay jiitu kii njaaloo sax day wax a wax ba àggal muy def làmmiñ day jiitu ba noppi mu door a ñëw kon kooku su nit fexe ba mucc ci rek mucc ci cër yi ci def day day daal di yomb moo tax bi mu waxee ne yonente bi alayhi salaatu wasalaam ci lan nga gën a tiit ci man daf ne ko kii laa gën a tiit lu bari ci bàkkaar yi bu ko nit ki defee bàkkaar làmmiñ day ñëw bàkkaar waat ki sàcc alal ji buñ ko waxee li muy jëkk def mooy miim miim ko di doon fen ki rey nit ki ko waxee li muy jëkk a mooy miim mu daal di doon fen bàkkaar bu njëkk ba kon làmmiñ doon na koo xam ne ki ko fexe ba mucc ci moom leneen lu bari lu nekk day day mën mucc tax dañuy wax ne borom bi Ibnul Qayyim sax mi ngi koy wax nee na borom bi tabaraka wa taala da laa defal ñaari nopp ak wenn làmmiñ ngir ngay déglu lu ëpp li ngay wax ngir li ngay déglu ëpp li ngay wax léegi nag da gis yor ñaari noppam ba noppi daanaka du ca déglu wax rek wax eh, ñaareel ba gannaaw boo xamee ne daaful iman jàll na moo di al wa tashaddudu ala nafs xatta yamalla fa yanxarif maanaam yan sa bopp ci li ñu tudde ay jaamu yàlla loo attanu kooku yi lii tax am ñàkk istiqaama ci la bopp dugg ci jaamu yàlla rek gis ñu ne naafile yi boo surtout yenn téere yi nga xam ne dañ koo teg te teguwul fenn maanaam bu ay téere du xadis du lu kenn xam ñu naan la guddi sàngam boo jullee téeméeri rakkaa da nga am nangam i nangam bal ngaa faatu da nga gis sab sées ci àjjana nangam nga fas yéene jël yooyu yëpp fas yéene guddi gu nekk nga julli téeméeri rakkaa jàng ab kaamil def nangam def nangam ba duutoo nelaw da mujj julli fajar sax faf doo ko def doo ko defee ci la doonoon faratee faf doo ko mën a defi ndax da ngaa fanaane xoole ci yeneen yi tekkiwul dara moo tax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam na inna diina yusrun diine maanaam du lu compliqué inna diina yusrun walan yushadda diina ahadun illa galaba nee na ku bëree diine moom diine dana la daan maanaam boo ñëwee fas yéene ni lépp dama ko bëgg a def benn yoon da ngay mujj doo dara moo tax mu ne fasaddidu wa qaaribu wa abshiru xadis boobu mi ngi ci buxaari nee ngeen jéem seen kem kattan la ngeen mën ngeen ko def moo tax yonente bi alayhi wax ne li gën ci jëf yi mooy jë gën a sax doonte dafa néew seetal li nga mën nga di ko def saxoo waaye bul yem sa bopp loo xam ne attanoo ko ëllëg ngay bàyyi la nga xam ne moo gën di farata loola sax foofu ñetteel ba adamu wuduxil fi lxayaa ñàkk xam sa objectif ci dund gii loolu ci liy tax nit ki gàllankooru ci mën a am listiqaama ci la bokk nit ki daa war a leer ci moom ne li ko fi indi asaasan fii ci kaw suuf moo di jaamu yàlla ak wéetal ko nit ki su xamoon objectif am lépp lu koy jële ca loola loola dana ko sànni ca àll maanaam kenn du ko ci mën a jële xam naa ne man dañ maa andi fii ma jaamu yàlla war a wéetal yàlla nga ñëw di ma gaaral loo xam ne su ma ci duggee shirk la maanaam bokkaale la kooku doo ko mën ndax xam naa sama objectif xam naa fi ma jëm waaye ki nekk ci kaw suuf nag te xamut fu jëm mooy koo xam ne ku jóg rek yóbbaale dañuy wax ne ki amul hadaf maanaam ki amul objectif ci ci àdduna mooy koo xam ne dafa mel ne daa dem ci mbedd mi ab taxi romb ko rek mu daal di koy arrêté mu taxaw mu dugg euh, borom taxi bi ne ko foo jëm mu ne ko demal rek foo jëm baax ki amul hadaf ci kaw suuf si noonu la mel kon jullit bi ci boppam yàllaa ko rëddal ak hadafam ngërëmul sunu borom tabaraka wa ak tabbi àjjana ak wéetal yàlla ak jaamu ko loolu mooy li ko indi fii ci kaw suuf lépp lu koy soppi di ko jëlee ci loola rek loolu da ko war a sànni ci àll ba ak fu mën a jóge euh, ñeenteel ba moo di tarku majalisi taallum wa murafaqati saalihin bàyyi toog ak jataayi xam-xam yi dem ba amatoo benn programme ci toog boroom xam-xam moo tax boroom xam-xam yi nag war nañoo góorgóorlu jàkka yi dañ ci jéem a delluwaat nag mu am ay duruus jàkka yi nañ am ay xalaqaat maanaam jataayi xam-xam yoo xam ne boroom xam-xam ñoo fay toog waxuma taxaw di waaraate de waaye yor ab téere di ko jàngale seet téere boo xam ne téere xam-xam buy jariñ askan wi la ñu génne ko mbooloo mi di toog yi di leen ko jàngal loolu ci li dimbali nit ñi ci listixaam ci la bokk waaye su lu mel noonu amatu jubluwuma ci li ma wax léegi ne nañ bàyyi waaraate waaye jataay yi xam-xam yi may wax laa wax ne li ma ci jublu na doon jataay yi xam-xam waaye bokkul jataayu waaraate yi nga xam ne nit ki day benn occasion ñu julli bësal noonu wala nangam mu jóg juróomi minute mu taxaw noonu wax daal di jàll loola baax na mën naa tooyal xol yi mën naa encouragé nit ki ci la doon def waaye nag lay jox xam-xam ba moom na doon jataay xam-xam su loola amatul rek nit ñi mën nañoo dem ba li ñu tuddee istiqaama moom euh, day daal di jafe ci ñoom lool juróomeel ba moo di alfaraaxu bi shiqayhi arruuxi wa zamani widd ci wàllu waxtu toog féex amoo def loolu ci boppam li feeg mi ngi am ci waxtu jullit yi danañ am gàllankoor ci mën a jub ndax ndaw li toll ci digg ak ndawam xëy amul dara lum def xëy toog jéemu koo wuti jéemuta jàngi xam-xam jéemut a liggéey jéemut def formation ci dara xanaa toog loxo kese kooka lu jëkk yem ci moom mën na ko yóbbu bu dajee ko sàcc mën na ko convaincre mu doon sàcc bu dajee ko agresseur mën na ko nax bu mu ànd ak moom dem ca loola man naa am saa si dajeeg leneen lu tane loola mu yóbbu ko ca loola waaye ala kulli xaal nit ka daa war a am programme am boo xam ne moo koy tegal boppam di ci góorgóorlu mu doon lu jub moo tax waykat ba daf ne inna alshabaaba ak ndaw akum koom maanaam nekk ndaw ba noppi dara nekk ci sa loxo ci xaalis ba noppi amoo loo def nee na ñett yooyu moom moo gën a gaaw ci yàq doomu aadama kum daje ci yow rek dana la yàq kon alfaraax muy waxtu wu witt dañ koy wattandiku nit ki day am programme nit ki saa xëyee rek war naa tër dara loo xam ne bisub tey bii lii la war a def ba jant bi so su fekkee ne amut lu mel noonu rek waxtoo moom witt dugg na ca biir kon faawu jullit yi nañu fonkaat Eh, ba ca tegu moo di al yasu wal qunuutu min rahmatillah maanaam nit ki bu demee ba def ay bàkkaar yu bari mu dem ba jàpp ne moom daal kenn dutu ko jéggal ndax càggante bu ko dal ak càgganteem àgg na ci mu jàpp ne yàlla dootu ko jéggal kooku moom la ñu tudde xunuut musiba la amul benn bàkkaar boo xam ne doomu aadama dana ko def te bu jéggaloo yàlla du jéggal loolu amul qul yaa cibaadiya alladina asrafu ala anfusihim laa taqnatu min rahmatillah inna allaha yaxfiru dunuba jamia borom bi nee na yonent bi waxal sama jaam ñi nee leen sama jaam ñi nga xam ne asrafu ñi nga xam ne dugg nañ ca bàkkaar ya ba nuur ca ba sori ca nee leen laa taqnatu min rahmatillah bu leen naagu ci yërmaande sunu borom tabaraka wa taala inna allaha yaxfiru dunuba jamian yàlla day jéggal bàkkaar yi yépp ci ku ko tuub kon bu leen naagu sa bàkkaar nu mu mën a mel bul na di su ma jéggal tuubal ñu jéggal la soo tuubee ñu jéggal la nga jub waaye su nit ki nekkee ci dëngte ba noppi jàpp bu tuubee dañ ko jéggal kooku du am listiqaama mukk kon kooku ci gàllankoor yi la bokk juróom-ñaareel ba moo di fasaadu masa maayiri listiqaama nattukaayi njub ci boppam dem ba lu bari ci nit ñi Eh, amatuñ nattukaay boobu amatuñ nattukaay boobu ñenn ñi daal ki jub ci ñoom mooy ku baax ci ñoom ginnaaw am na ku koy jox daal kooku moom ku jub la ku baax la buñ dee tagg moom lañu war a tagg boobu mu ay ar baaxut mën na lay jox man naa baax ci yow du fekk baaxut fa yàlla ñenn ñi seen ka jub ci ñoom mooy ko dëppoog ñoom ci xalaat sama xalaat daal wala sama ngir daal wala sama tariqa daal wala sama mbooloo daal ka ca ànd moo jub ka ca jubut nga xam ne bu ko waxul ci làmmiñ yëpp da koy dund loolu musiba la moom itam am na ñoo xam ne seen yëg-yëg ci seen bopp mooy ku jub dañ koy natte ci seen bopp ginnaaw moom mën a yam daal ku jub la su avancé kooku ëppal na su ma yéesee kooku yéesal na déedéet doo nattukaay bi ak koo mën a doon nag boo dul yonente ba sallallahu alayhi wa doo nattukaay bi nattukaay ba mooy dëgg nattukaay ba mooy alquran kon miyaarul istiqaama nattukaayu njub mooy téere bi yàlla bi ak sunna si yonente bi sallallahu alayhi wa te ku dul yonente bi alayhi salaatu wasalaam yonente bi nee wa xayrul xataain attawaabuun ku dul yonente bi alayhi salaatu wasalaam da ngay juum su fekkee na kon beneenum nattukaay boo xam ne dañuy wax ne ku mel ne ne moom jub boobu nattukaay bi mel noonu bul ko def sa bopp bul ko def keneen tam la nga jubal jubal nga ci alhamdulilah santal yàlla ca loola la nga juum jéggalul yàlla sunu borom su ko defee sa istiqaama mën a sax kon ñàkk a xam meyaarul istiqaama dana tax nit ci boppam moom mu génn ci listiqaama te yëgu ko ña naan dugg nañ ca ak ci it mu juum ca àtte ba muy àtte ndax nattukaay ba ci boppam moo yàqu e, juróom benn juróom moo di daafu tarbiyati imaniya wa fasaadu kathirin min manahij at yar e, ak jàng ci boppam ak ñàkkam tegu ci yoon dana tax njub jafe ku gis jamono ji ñuy dund nun tey ci réew yu bari tey sunum réew bokk ci biir méthode yi nga xam ne moom la jàng jàngale nit ak di ko ko yare gis nañ li ciy dimbali nit ki ci listiqaama bariwut kon faw su fekkee ne dañoo bëgg mucc ci lu mel noonu faw am benn système mu yar boo xam ne buñ indi la boo xam ne dana jubbanti nit ki ba xamal ko moom jullit mooy kan xamal ko diineem mooy jan diine yar ko jàngal ko mu jafandu ci loolu ñu yar ko ci mu màgg ca ay jikkoom nekk fa doon ay jikko ak mbaaxam nekk fa doon baax doon ab jullit doon itam nitut am réewam koo xam ne dana mën a liggéeyal am réewam du ko amal njariñ ku mel noonu su amee kooku mooy doon ka jub ka mucc waaye su loolu amut nag xeetu yar yi nga xam ne moo am yépp yu yàq doomu aadama la ak di ko gis ndaw ñi tey lu bari ci ñoom ñëpp nag waaye lu bari ci ñoom nag da am tiitaange ci ñoom ndax dafa dem ba mel ne lu ñuy tudde sax ab yar bu ñu leen préparé sax amatul maanaam système éducatif boo xam ne dañuy wax ne bii lañ préparé ndaw ñi daanaka amatul moo tax dañuy fortaatu lu am rek for jël nga gis ñoo xam ne li ñuy jaxase kenn xamul lu mu doon ci àdduna seeni bopp nañ koy def seeni nopp takk ay jaaro ñii takk ay yëf yoo xam ne ñii sol xeeti colin yoo xam ne boo ko gisee buñ ne kii ci Sénégal gii nga xamoon yow ci la nekk da ngay am tiitaange ci loolu wala nga ne kii moom du Sénégalais waaye feneen la jóge ko dul fii kon fortaatu googu ku amut lu mu lekk mooy fortaatu dund bi nga xam ne mooy dundu jullit ñu war ko cee yar xont ko ci ba mu yaru ci mag bi ci naan ci ba màndi su fekkee yar bu mel noonu am na foofu dana mën a mucc ci loolu mais lu dul loolu euh, la ca des mooy am juróom-ñeenteel bi moo di euh, média ci boppam wasailul i'lam al mudallila bu ñu waxee nag média mooy bépp jumtuwaayu information ak communication boo xam ne ñu ngi koy jëfandikoo tey la chaque ne ay njëriñ a nga ca biir waaye gàllankoor la nag tey ci listiqaam gàllankoor la ci listiqaam demal ci télévision yi la nga ciy gis ci lu gàllankoor ci listiqaama kenn xamul nu toll demal ci internet bi déglul rajo yi demal ci li ñuy bind ci journaux yi bis bu set da gis loo xam ne da lay wóor ne lii ñuy xëy di ko jàng di ko seetaan listiqaama dana gàllankooru ci ñoom lool dana gàllankooru ci lool te nit la muy seetaan di ko déglu di ko jàng nu mu a def lool dana daw ci biir deretam kon lu baax ci boppam jullit bi daf ko dawale ay bëtam dawale ko noppam su ko defee yàlla mën ko musal ci loolu fukkeel ba nag te moom lay mujjee moo di wujudu muassasatin dawliya muzawwada bi alatin daxma min wasaili daxti alzahirati walxafiya tadoo ay mbootaay yu mag yoo xam ne adduna ña fa ëpp doole muy Occident ñoo ko taxawal te mbootaay yooyu la ko tax a jóg mooy tasaare loo xam ne bokku tëg la jullit ba war a dund maanaam tasaare yàq kooku ci yi gàllankoor ku déglu ci jamono yu yàggut li réew moo xam ne ay nit nekk ay jullite nga lañ nag am nañ seen jom am daal li ñu tudde ngóor jigéen ci muy réew moom dañ ko fi xaraamal yóbbu ko ca parlement ba ñu wate ko saxal loola loola de lu baax la lu ca tegu banque mondiale ci boppam ñoo taxaw ne Uganda su ngeen delluwut gannaaw ci loxo yi ngeen wax ndimbal yi ñu leen daan jox yépp ay milliards la waaye dañ koy arrêté ku ma sa dégg loolu yéen démocratie ngeen gëm ñii seen parlement lañ yor boo xam ne seenum réew fa nekk ñoo dajal seen bopp ba ne lii bëggu ko ci sunum réew néewuñu diine lislaam ko aramal wala lenn waaye noonu bëggu na ko ci sunum réew te fas na ko fi yéenee dund nga taxaw yow ne kon yow dootoo jot say ndimbal il faut nga ne daal góor jigéen dana am ci réew mi nga door a jot say ndimbal aoudu billah kon loolu kenn mos koo dégg kenn xamut lan la ñooñu ndax la leen tax a jóg mooy lebal nit ñi xaalis pour soqali leen wala jàppale leen ñu soqali wala dañoo yor ay yoo xam ne moom lañ bëgg a tasaare ci réewi jàmbari ci askani jàmbari kon loolu lay bëgg su boobaa ku ci liir di gëstu ku nekk gis nga fan yi euh, directeur benn euh, site bi ñuy wax Mozilla Mozilla kooku dañ koo fal ak directeur moom mu doon koo xam ne day critiquer wàllu ngóor jigéen mais ñëpp dañoo taxaw ne dis ko dis ko bàyyi fi ne démb la mujj démissionné moom waa jooju ndeysaan te du jullit du lenn mais moom dafa gis ne loolu baaxul dëppawul ak natiiru doomu aadama mu di ko xeex ba ñëpp xam ko ci moom ñi fal ko ñu ne loola du ci jàpp du ci ci jàpp kon yu mel noonu ci biir askan yi nga xam ne dafa am yeneen i askan yu yor seen i seenu yàqute nga xam ne ñoom yàqu nañ ba noppi fas yéene ñëpp yàqu nag luñ am ci alal ak ci moyen ak ci jumtuwaay ñi di ko def ngir jullit yeeg Afrique ñëpp ñu ànd dugg ci biir loola yu mel noonu ma ne ci gàllankoor listiqaama yi ci la bokk faaw jullit bi itam mu xam ko nag jéem ko euh, bàyyi xel kon daal jàpp naa ne lii Euh, mooy tomb yi nga xam ne nee naa danaa ci jaar di ñaan sunu borom tabaraka wa taala mu boole ñu tawfiq te lépp luñ fi dégg loo xam ne luy jariñ la mu boole nu ci jariñ su ci tuyaaba amee mu boole nu ko nun ñëpp yàlla na ca am te lépp lu ci am ci njuum te mu jéggal nu ko te jéggal mu suñu bakkaar nun ñëpp di dellusiwaat di sant mbokk yi fii ci Thiès wax dëgg yàlla seen liggéey bi liggéey bu am solo lool la di leen sant itam ci teewlu gi wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain jazakallahu xayran bokk mi yàlla ko yàlla fayal ah, bokk yi bu fekkante ne du ñu mën a doon ñu mën a ñàkk ñu dal rek innama al amalu bi xawaatimiha incha allah lu ci des dootul bari ñu ngi sant docteur Ahmed bu baax a baax a baax dafa naa ne doon séentu bu ñu gisee ñu ko raw itam ñu ko ëpp gis nañ ko ba mu doy sëkk yàlla na ko yàlla fayal yàlla yàlla yokk xam-xamam guddal fanam léegi nag programme bi li ci tegu woon ginnaaw ard bi mooy dinañ jox kàddu benn mbokk mu wax ci turu wootekat yi nga xam ne ñoo fi nekk moo xam ay association islamique lañu moo xam ay imam lañu ay ay ay asatisa euh, moo xam moo xam kooku nag oustaz Mbaye Seye Guèye la incha allah dinañ ko jox mu wax ci lu mat cinq rek kàddu yu gàtt lay doon ñu jàll ci li ci des ustaas Mbaye bismillah mbokk yi ñu ngi jéggalu ci ñu ngi ñaan ñu ànd ak dal ba jeexal insha allah jataay bi ci na mu tàmbalee mais yëngatu yi ñu tàmbali dëgg-dëgg mën a tashwis alhamdulillah alhamdulillah alladi bi nicmatihi tatimu salihat ñoo ngi sant yàlla bu baax di jul cenent bi alayhi salaatu wassalaam di kontaan ci jataay bi di ñaan yàlla mu boole ñu ci ñi nga xam ni dinañuy déglu ay kàddu seet la ca gën a rafet ñu jëfe ko yàlla nañ ci yàlla boole ñuy sant jamaatul muslimina wal muslimaat ci seen jataay bu mag bi Euh, di leen sant itam ci jagleel gi ñu jagleel ay woote ngir yéene ñu tuyaabay teew ak jariñu yéen ñaanal yàlla yàlla leen yàlla fay waaye di sant itam sunu ustaaz docteur Ahmad ci waxtaan wu am solo wii nga xam ni indil nañu ko te mu nekk waxtaan woo xam ni dafa ñëw ci waxtoom ndax leer na ni bi muy tudd jeexit yi jeexit yi nga xam ni njub mën na koo def di tudd itam yi gàllankoor njub ba mu ba du mën a am kenn ku nekk gis na ni kon ndekete waxtaane njub ci waxtoom la toll ndax jeexiti gisuñu ko te li koy gàllankoor gis nañu ko wala lu bari ci jeexit yi giseesu ko te lu bari ci li koy gàllankoor ñu ngi koy dund kon teewaay bi ak waxtaan wi am na solo ñëw na ci waxtoon ñuy wax ci turu kon mbooloo yi ñu woo yépp ba ñu teew te wax ci seeni tur lu jafeñ la di leen jéggulu itam ci wax ji bu fekkente ni am na lu safaanoog nañu xalaate ak nañu bëggee mu mel ni jataay bi ak woote bi ñun dañu ko gise ni war nañoo ànd dimbalante ngir njub mën nekk saxaaba yi jàngal nañu ni ak foo mën a toll ak noo mën a mel war ngaa soxla sa moroom ngir mu dimbali la ci njub a'inuuni la Umar Xataab waxoon dimbali ba ñu ko falee dimbali leen ma maa ataatullah fiikum fii léeg maa ngi topp yàlla ci seen biir dimbalante waaye la ca gën a am solo mooy la mu jeexale mooy su ngeen gisee ci man safaanu istiqaama muy i'wijaz ida raaytum fiya i'wijaajan fa nii su ngeen gisee ci man ñàkk ak njub dimbali leen ma ba ma jub mais ñu xool la mbokk la benn saxaabi yi jóg araab sax la wax jóg wax ko mooy wane importance su istiqaama ak su ñàkkee ni mu ñu war a jaral ñun ñëpp ñu dimbalante ba mu am te mooy la mu la ko wax ni suñu gisee ci yow ak ak jubadi suñu ñaw kay yi lañu lay jubbantee maanaam foofu muy wane ni kon jullit ñi war nañoo ànd di dimbalante ci njub googu war a am parce que lu ñuy jariñ la ñun ñëpp comme ni ko ustaas wax jazaahullahu xayran bi buy wax asaar yi muy jeexiti nee na du fi nekk di tudd naan lii mooy luy jeexital ci kenn ki lii mooy liy jeexital ci mbooloo mi parce que lépp lenn la kon war nañoo ànd dimbalante ngir njub googu mën a am ci suñu biir waaye mën a tasaaroo ci fi ñu nekk kon ci turu mbooloo yi lislaam yi ak daara yi ak kuréel yi ak aima yi njiit yi wax dëgg ñu ngi wax ni yëg nañu waxtaan wi amuk soloom di wax ni itam yëg nañu ni war nañoo dimbalante ngir njub gi mën a am di wax ni itam kenn ku nekk fa nga nekk war ngaa taxaw pour que njub gi mën a dellu si ndax ci ak dellu seem ci la ñu amee jàmmi àdduna ci la ñu amee jàmmi àllaaxira aqulu qawli hada wa astaghfirullah li wa lakum salaamaaleykum wa rahmatullah jërëjëf euh, Babacar kàddu gi am na solo lool dafa naa bokk ni ñu doon wax ci seen tur firi nga seen gént xam ngeen ne bu ustaas pare jéem ñoo jéem a def dara naan dañuy tënkaat li mu doon wax yépp ndax loolu bare lu lu muy fekk lu teey mu naxal ko te bu ma seetloo waxtaan wi ni ñu ko doon dégloo ndax wax ji moom am solo gi kenn werantewu ko ci doon wax li mu daan wax su mu ko sukkandiku kenn werantewu ko waaye li gën a am solo mooy ni nit ñi dale gis nga sànq bi mu paree dama defoon sax nit ñi dañuy ñibbi ndekete booba am na ñoo xam ne bëggoon ñu ngi doon bëggoon noyyi sax dañoo téye seen noo bi mu paree la ñu doon a noyyi kon jéggal nañ leen boobule déplacement li ci tegu mooy xam nga ni waxtaan wu mel ne du ñàkk moos ay nit ñu bëgg laaj ñu bëgg a waaye nag mu bañ nekk rek benn foiru di wax rek waaw dañoo tànnoon Faysal pour mu ah li mooy eh, kii dégg diine point net Faysal kaay kaay <laughs> laa la jox rek comme noonu lañ ko tëddee ah faysal moom ñaar rek la mën a doon muy faysal mi ñu ko tudde xam nga ne ci way juram almalik faysal la ko tudde allahu akbar te xamu xamu ko woon woowu tur wutu ci woon dara dafa dem Màkka gis liggéey ba fa nekk ka jiite woon jamono boobu di almalik faysal nga xam ne barina fi mu nekk nii yëngatu yu jullit yi di jëngatu li ñuy yëngatu lu ci baree bari moom moo ko initié woon moo taxawal rabitatul alami islaam yi annadwal alami li shabab islaam yi ne ndaw ñi war nañoo am kuréel gu leen représenté ndaw yépp moo ko taxawal al banque islamique li tanmiya moo ko taxawal Faysal moo taxawal mbooleem kuréel yooyu gis ngeen jaama islamique bi docteur Ahmed génne moom moo gis ne jullit yi war ñoo soxla daara joo xam ne ñu nga xam ne dañoo nekk seen réew di ay borom xam-xam ñu di leen xatal dañ leen fa yaatal ñu ñëw di joxe seen xam-xam yooyu moom moo ko moo ko taxawal ak leneen ak leneen ci accident la faatoo accident bi ba léegi nit ñi dañuy wax ne wóoluwuñ ci noonu lislaam yi ci ne ñoom ñoo saxee accident boobu kon almere faysal way juróom bi mu demee mu ñëw mu judd rek mu daal di ko koy tuddee loolu yéeme na xam naa bokkul ak faysal bi ñuy dund léegi fay sàll fay sàll bi ñu ñuy dund léegi asalaamaaleykum asalaamaaleykum wa rahmatullah kon incha question yu fi benn ngi nii kii ab enseignante la nee na yàlla da ko nattoo mu dugg fonction publique ci enseignement laïque bi te nee xam na ni programme bi ñu leen jox programme laïque la te moom jullit la di dund sunna léegi muy laaj nan lay amle al jubal ci classe am ñaareelu question bi waaw Buyurun. beneen bi kii ab soxna la buy bu boroom këram dundul sunna koo xamante ni daal bu jëfee sunna muy laaj ànd ak moom lan mooy njëriñ bi ak lor bi mooy nekk ak moom daal nee na jullit la mais du pratiquer bon beneen bi nee na est-ce l'islam daganal na groupement féminin yi lu mel ni ay tour tontine ak ay mbootaay daal beneen bi nee na bu ñu gisee mbokk bu góor wala bu jigéen koo xam ne mi ngi bàyyi sunna nee na daal fan la ñuy jaar ak moom ba delloosi ko waaye defe naa ñeenti question yooyu moo fi rotoon en الحمد لله نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم question bu njëkk bi mooy loo xam ne dafa jëm ci kuy jàngale ci école publique yi nga xam ne dafa lay ci ni mu ko waxee ba noppi moom mu nekk ab jullit ba noppi bëgg a def listiqaama eh, njàng bi nga xam ne moom lañuy ñuy jàng muy enseignement public am njàng la moo xam ne njàngu xam-xam la lu baree ngi ci loo xam ne luy jëriñ la te it yi nga xam ne moom la ñuy teg bi ci jàng pour préparer nit ki la ngir mu mën a liggéeyal addunaam loolu moo ko tax a jóg loola lu baax la kon duñu wax ne rek njàng mi mu laayig la baaxut la waxu kay am na yu ci baree baree bari yuñ mën a jàng su dul woon loolu kon tey lu baree bare bari loo xam ne mi ngi dox ci àdduna ci ay moyens su dul woon jàng mu mel noonu kon dana jafe loolu mu dox médecine beeg li lu mën a doon loo xam ñu ko rek jàppal ne ñi ca gën a sori ñu génne ci yooyu kon loolu lu doomu aadama aajo woo li des kay ba moom nan la mën a góorgóorloo ba ragal yàlla am listiqaama borom bi tabaraka wa taala dafa ne fattaqullaha mastataatum fenn fu nit nekk fu nekk mën na faa ragal yàlla kem kàttan ragal yàlla benn ci sa liggéey del xëy waxtu di wàcc waxtu te lii sa warteef lépp nga di ko def ba mat bala ngaa laaj li nga xam ne mooy say àq beneen bi ci des mooy sa wàllu diine na la gënal lépp lu dul moom léeg-léeg ab jàngalekat wala ab élève wala ab étudiant ñiy laaj ne léeg nun kat waxtu julli day jot te duñ nu may nu julli ma ne déedéet na ngeen di def suñ wàññee seen salaire di soow ba ñëpp dégg ko ku wàññi sa julli na ko ñëpp dégg demal ca waxukaay ya nga wax fa ne nun kat dañ ñu tere nu julli su ko defee lu mel noonu nañuy delloo gannaaw ca loola danañ dellu gannaaw ca lii waaye ginnaaw bu ñu wàññee ñaari dërëm ci salaire ñëpp dégg ko ngay dox ak ku nekk nga dugg fa wax a wax ba ñëpp la bul julli nga kon loola war a seetaat waaye bul xool enseignement kon jullit bi na jéem a ragal yàlla fépp fu mu nekk na ko diineem gën a ludul diineem waaye na xam ne njàngale moom yi kat doonul njàngale moo xam yàq rek moo ko tax a jóg waaye manees na ko manees na cee defar doomu aadama te yow jàngalekat biy jàngale te doon koo xam ne ku yàlla baaxee la nga defam sa biir classe ab liggéeyukaay la sa biir classe ab liggéeyukaay la moo tax matière bu ñu la jox bu booy jàngale bu mu mën a doon mën nga caa liggéeyal diine ndax diine lislaam moo yaatoon wax naa la léegi kàngam bu mag bi nga xam ne moom yoonam musta nekk ci lislaam naka la ko lislaam xëcce ba foog mu tuub kon yow ma tuub ba yàlla baaxee la nga jàpp ci sunna si yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ñi xëy na la mbooloo ngi ci sa kanam moo xam ne xeetu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam la ñu ne la jàngalal ma leen matière bii mën nga leen a jàngal matière boobu waaye mën ngaa def ci ñoom ci ay jikko ak xeeti melokaan loo xam ne da leen defar ci biir classe kon foofu ab liggéeyukaay la boo xam ne ku fa yàlla yebal na nga yëg ni ci tool nga nekk boo xam ne toolu daawa la toolu jàngale la waaye toolu defar boroom xam-xam boo xam ne am réewam da cay Euh, boroom këram dafa nekkul ku jàpp ci sunna euh, ab jullit la waaye ni mu waxee du pratique la ma xam du lu xam naa du pratique xëy na daal jàppul ci sunna ci yépp wala am nay càggante wala yu mel noonu waaye fekkee du pratique la muy firi mooy du julli du woor du def nangam moom su boobaa loola moom beneen taxawaay la si war am ci moom waaye bu fekkee mi ngi julli daal di woor di def santaane yi nga xam ne moom lañ ko sant di wattandiku yenn yu mag yi muy dugg ci ay sangaraak drogue xeet yu bon yi nga xam ne mooy yu bon yi dëgg-dëgg yu xaraam yi su boobaa yeneen yi des ci diggante bi muy mën naa dese ay biddaa wala mën naa dese ay bu ma ne ay biddaa biddaa yi nga xam ne biddaa dugg ci ay fikkar yu kenn xamul dugg ci ay nangam yoo xam ne saxul ci sunna lu mel noonu nit lay doon koo xam ne ku war a jàppale la ku war a dimbali la te buñ jàpp ne nag ku góor ki rek moom moo war a jubbanti ku jigéen ki waaye jigéen dana jubbanti góor jigéen dana jubbanti góor euh, bu leen fàtte mukk Umm Sulaym yaayu Anas ibnu Malik soxna soosu soxna su ràññiku woon la ci lislaam soo xam ne tax na boroom këram tuub dugg ci lislaam waaye wëlbatiku na doon koo xam ne ku continuer di ko defar lay di defar ak njabootam ci wàllu jikkoom te boroom këram nekk ci seen biir soxna soosu bi nga xamee ne yonente bi sallallahu dafa gàddaay ñëw Madina fekk jëkkëram faatu bi ñëwee li mu njëkk def mooy Anas ibnu Malik am fukki at mu ñëw ne sama doom ji jox naa la na lay liggéeyal Anas toog ci këram mu toog ba benn bis Abu Talha ñëw ne ko da ko bëgg mu ne ko ah, man ku mel ne yow day gisu ko gàntu waaye nag yow dëggadul ab jullit te man ab jullit laa te ku dutub jullit day góor mën ko yor ab jullit bu jigéen kooka dem dem toog xalaat xalaati boppam del siwaat dikk ne ko léegi su ma duggee ci lislaam nag mu ne ko soo duggee ci lislaam sa dugg ci lislaam mooy sama can man gi ma la war a laaj moo tax boroom xam-xam dañu wax ne ashrafu mahrin fi l islam huwa can gi nga xam ne mooy gi gën a tedd ci lislaam mooy can goo xam ne mooy lislaam ci boppam kon mooy can boobu nga xam ne histoire dencal na ko ko ba tey mu dugg ci lislaam daal di doon borom këram yonente bi sallallahu alayhi wa may ko kooku boo jàngee nam doon dunde ci biir këram ak yu baax yam fa def ak lam bàyyi ci ay jeexit ak yonente bi sallallahu alayhi wa nam doon toppatoo waa kër googu ak nam leen doon déglu am na bàyyi bi dem ci jàkk ji julli ji abu talha xale bi faatu gannaawam guddi bi mu jógee ci jàkk ji ñëw ne ko gone juróom def mu ne ko dal na de dal na sakana maanaam dal na lam ca déggee mooy feebar bi tànne waaye fekk moom faatu mu sàng ko teg ko ci lal ba léegi bëggut ne ko faatu na kon mu yàqu reeram yàq guddeem loolu moo tax mu ne ko dal na nga xool diggante yaay ak doomam bi dem ba nekk ab sëppeen buy waaxu di dem ak ñëw faatu mu mën a garder boppam noonu dikk tegal borom këram reer ñu bokk reer ñoom ñaar bi waxtaan ànd ca li war ànd ci guddi gi ba waxtu wi war a jóg di julli guddi jot soxna si yee ko ñu jóg mu toog mu ne ko dama lay laaj su fekkoon ne am na koo xam ne daf laa aal yëfam jekki ba mu yàgg mu ñëw ne damaa bëgg a jël sama yëf nga ne ko doo ci jot kon loolu noo koy àttee mu ne ah loolu de tooñ la mu ne ko waaw dafa am lu nu borom abaloon te jël na ko mu ne ko mooy lan mu ne ko mooy sunu doom ji mu ne ko lii kañ la mu ne ko démb ba nga julli jee gee xol soxna la muy def ci borom këram ci xeetu jikko ak xeetu yar kooku dafa jaaxle bi mu jullisee fajar mu ñëw nett ko yonente bi sallallahu alayhi wa sallam yonente bi ne ko maa ngi ñaan yàlla ànd boobu ngeen ànd bii su ci yàlla defee doom yàlla doon ku barkeel kii nettali xista bi nee na xale boobu yi ci juddu dem na ba ay sëtam lu mat téeméeri xuffaasul quran ñoo xam ne ñu mokkal alquran juddu na ñoo xam ne ñii ay imam lañ fële ñii ay umara ñii jiite fële nga xam ne dafa mujj mel ne njëndi lislaam yi foofa dem ku nekk fekk fi koo xam ne ci sëti kookee ci la bokk kon yiw bu mel noonu ak soxna yu mel noonu yooyu lañ soxla ci kaw suuf si fii mu nekk nii dafa mel ne jigéen ñi dañoo dañoo jaasir ba mënatuñoo jur nit ñu baaxe noonu xoolal sëñ bi kàngam yu mag yi fi jaar ci lislaam ba mu sosoo ba léegi te ay jigéen doom ñoo leen jur te boo xoolee kenn ku ci ne tarbiya ba mu doon jëfandikoo ak jubbanti ak sa borom kër bala jege woon nan ko doon def loolu ci lañ dem ba seen borom kër yi ñu soppi leen kon soxna si liñ koy dénk moo dina góorgóorlu jëfandikoo ma ak borom këram fexe ba teg ko ci yoon fexe ba di ko déglu loo ay kaset fexe ba di ko demloo ci jàkka fexe ba di ko fekkeloo ay conférence fexe ba soppi ak dundam loolu mooy liggéeyam bis nekk tey liggéey bi gën a rëy bu mu jàpp ne mukk jëkkëram rek mooy responsabilité waaye moom ci boppam am na responsabilité ci gindi ko te yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na bu yàlla gindee ci yow kenn nit kenn nit kooku moo gën ci yow adduna ak li ci biiram kooku su fekkee ab jaambor la su fekkee sa borom nasallaha lahu alhidaaya euh, groupe bi jigéen ñi su fekkee ne mbooloo la moo xam ne dañoo dajaloo ngir li ñuy tudde at taawun al birri wa taqwa nga xam ne lu baax rek moo leen boole ak dimbalente ak lu leen di dolli ragal yàlla su boobaa groupe ak nu mën a mel lu baax la tontine yeeg yi ñuy wax yépp daf cee am façon yoo xam ne yu baax la a wàññiwul dara comme weer dee ñu ne kenn ku nekk na indi nangam kenn jël moo xam dañ koy daal di jox kenn wala dafa am ñu ko tëree noo xam ne soo amee xew lay jël wala su ko war euh, su demee ba soxla mën koo jël mën cee jariñu su fekkee yu mel noonu la te teg nañ ko ci règlement yu leer nga xam ne dañ koo bind ñëpp xam ko d'accord ci ñu bind ko te denc ko ci loxo yoo xam ne yu wóor la loolu ci biir cadre dimbalante lay doon waaye regroupement yi ñu wax ne war nañoo góorgóorlu ba dugal ci biir liggéeyu lislaam mu bañ a doon rek daje def xaalis def nañ nangam diw xewle na nangam ñu coowaloo génn dem waaye nañuy fexe bay dugal ci biir ay waxtaani diine fexe ba dugal ci biir am njàng ba fuñ daje fu nekk buñ defee la ñuy ba it bala ñu faa jógee ñu dolli ko dara ci seen diine ay soxnaa ngi fi yoo xam ne tabarakallah ñu jàngale bu baax a wax mën a jàppalante ñoom ci wet googu kon nañ jàppalante ak soxna ci wet a doon rek ay ndaje pour daje rek tàqalikoo pour tàqalikoo Euh, ban taxawaay lan war a am ci koo xam ne dañ koo gis muy dellu gannaaw ci sunna laaj bu mel noonu léeg-léeg day am lu baree baree bari waaye man damay wax ne am na laaj bu ko war di jiitu mooy noonu su toogee ba mu yàgg nu yëg ne noo ngi dellu gannaaw loolu ci suñu bopp ban taxawaay lan war a am ci bopp ndax nit ki léeg-léeg day fàtte boppam di wax ci nit ñi bu ma toogee may gis mel ne yow loolu ko gaar dala gaar koo gis ku nekk am na diggante bu mu toll boo xam ne day yëkkatiku boo xam ne moom imaanam fi mu nekk waaye day toll diggante boo xam ne yëg na ne feebal am kon li ma la njëkk wax mooy soo ko yëgee sa bopp gaawal delluwaat ci nga xam ne mooy yi renforcer iman dellul ci alquran dellul ci julli naafile jógal guddi tàllalal say loxo sa borom ñaan jàngal alquran gisee ak borom xam-xam yi toogal ci jataayu xam-xam yi lépp loo xam ne li dolli gëm yàlla gaawal ci loolu ah soo gisee nag sa moromu jullit moo xam ne loolu gaar na ko it la ngay ak moom gannaaw ñaanal sa bopp ak ñaanal ko mooy jéem koo dugal ci yu mel noonu bu dee da ngaa gisoon ne li ko ko teg mooy àndandoo àndandoo yu dul noona fexeel ba tàqale koog bu dee da ngaa gis ne dafa sàgganoon ci di dem jàkka ja wala muy déglu njàng ma àndal ak moom delluwaat ca daara ja ngeen di déglu njàng ma ànd leen dem ci jàkka ja ngeen di julli ànd leen dem ci ajjuma ja ngeen di déglu xob ga ajjuma ya jàpp leen teel ak moom di ko waar di ko laayee laayanteeg ndax kenn ku ci nekk da ngaa aajowoo lool da nga koy laajee biir mu di la laajee biir nga di ko dénk mu di la dénk moo tax wa tawaasaw bil xaqq wa tawaasaw bis sabr boobul ne kenn ki mooy dénk kenn wa tawaasaw boppam dañ koo aajowoo ñun ku nekk foo toll fu ne soxla nga ci sa morom mu di la dénk nga soxla di ko dénk boo gisee sa bopp nga dellu gannaaw gaawal nga dab dabaatal boo gisee sa morom bi dellu gannaaw gaawal nga dab dabaatal jàppale ko ndax ak dimbalante la boo xam ne li ëpp solo ci lu nit ki dimbalante fii ci àdduna mooy delloo sa morom ci siraatul mustaqim te lu bare bari ci nit ñi dañ dul xam xiima loolu waaye soo xamoon loolu li mu ci lislaam nit ki ñëw ne la yaa ngi juum ci nangam defal nangam kooka da ngay bég boo da nga ko war a neexal sax ndax léeg-léeg nga dégg koo xam ne ab kalpeem day réer wala dara mu ne ko ko for bu ñëwee danañ ko jox nangam ak nit di la ko gàgganti naa la sa nangam joom nga ci nangam a nangam nga di ca per loola moo gën ci yow ab kalbi bu réeroon defu xaalis yi delloo si waatam wallahu taala alam jërëjëf docteur dafa naa ñi doon laaj tontu nañ leen bu baax am na ñetti laaj yu fi ñëw ak benn intervention boo xam ne bu ñuy paree la ñuy jox borom intervention bi benn laaj bu sax nga bind ko te dafa wax ne tudd nga wàllu zikr ak importance bi mu am waaye liñ doon liñ doon sàkku ci yow booy nga wax kayfiyatu zikir bi nga xam ne moo am boobu importance maanaam zikir bi tax ñuy wax dëgg-dëgg ban la ndax ñàkkul xëy na du zikir yëpp euh, keneen ki dafay euh, laaj ne keneen ki dafa laaj ne tudd nga itam lu bare bare ci siira liñ ci wala wax nga bu baax ni ñu war a jàng siira pour xam ñi fi jiitu woon seeni jaar-jaar moom nag li ñu doon sàkku boo leen mënoon a tuddal ay ay maraaja ay téere yoo xam ne yi buñ ca delloo dina gën a tax ñu xam euh, siyaru ñu nga xam ne jaar-jaar yi ñooñu nga xam ne mooy ñu baax ni Eh, beneen laaj bi kii dafay laaj ne nee na menn waaye daal la dégg muy wax ne muy muy ŋàññi Abubakar Saddiq radiyallahu taala anhu ne Abubakar daal moom xawma kan waaye moom du wàll yu ndax bu doon wàll yu kon du tiit du ragal te yaa yonent baa ngi ne naan kon wala taxzan bul tiit bul ragal bul tiit te nee na yàlla nee na ala awliya allahi la xawfun alayhim walla am yaxasanan comme moom kon moom du du wàll yi xam naa docteur dana ci tontu xaw ma ndax moom ndax ma wilaayam la war a toppatoo wala bu Abubakar la war a toppatoo euh, kon léegi euh, ñetti laaj yooyu mooy am ginnaaw bi bu ñetteel bi euh, ki ñetteel bi kon suñu mbokk tafsir Gassama moo am ay taalif yu mu taalifoon euh, buggu bugguñu ko baaxe xam naa moom ay taalifam wax dëgg yàlla léeg-léeg ñu namm ko waaw na nekk sa taalif yoo xam ne xaadif lay doon dina ko doon yaakaar naa du bëri eh, zikr buñ ko doon firi ci wolof dañuy wax ne mooy tudd yàlla dafa laaj mooy lan tudd yàlla dafa bokk ci jaamu yàlla yi nga xam ne borom bi tabaraka wa taala daf ko santaane wadkurullaha dikran kathira yàlla daf ne nañ ko tudd lu bari nañ ko tudd lu bari tudd yàlla nag làmmiñ moo koy def waaye xol da koy teewlu bépp jaamu yàlla boo xam ne borom bi tabaraka wa daf koo santaane yonente bi sallallahu alayhi wa sallam moom la sant mu jot ko moo tax yonente boobu alayhi salaatu wasalaam bi nga xamee ne dañoo bëgg a xam nu nuy jullee moo nu ko jàngal nu door a julli waaye su doon danoo yem ci alquran rek wa aqimu salaa taxawal leen julli kon duñ xam nu ñu koy defee ndax luy wax nu ñuy jullee nekkul ci al ci alquran alquran néewul julli juróomi julli la néewul julli gi ñeenti rakkaa la gi ñett la gi ñaar la loolu néewul ci alquran yooyu yépp ki ko leeral moo di yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ba muy aj it borom bi tabaraka wa taala def rek wa azzin fi nnaasi bil xaj ñi ñu dem aji waaye nu ñuy koo xam kon yonente bi sallallahu alayhi wa sallam moo jiitu nit ñi ànd ak moom mu aj ñi xam ne kon nii la julli ga ba mu noppee dane sallu kama raaytumuni usalli julli leen li ngeen gisee may jullee noonu bi mu ajee ba noppi daf ne xudu anni manasikakum seenu ajjale leen ko ci man kon tudd yàlla it benn la ci jaamu yàlla yooyu li ko yonente lañ ko war a defee tudd yàlla nag bari na bari boo xam ne <clears throat> am na ci yoo xam ne dañ koo tënk ci jamono am na ci yoo xam ne dañ koo tënk ci place am na ci yoo xam ne dañ koo joyal maanaam dañ ko itlaaq tënkuñu ko ci dara loolu nag la xam-xam di jariñ ak jàng ndax yooyu mënees su koo xamee mënees su koo jàngee ci conférence moom mënees na la ca jox rek ay misaal bokk na ci yiñ tënk ci jamono mooy boo wooree bay dog jamono jooju am na zikr boo xam ne danga koy def am na yiñ tënk ci place mooy boo ñëwee ba ci jàkka ji bay bëgg a dugg am na loo war a wax boo dee génn am na loo war a wax booy dugg wa am na loo a wax booy wa am na loo war a wax tudd yàlla ci ni ko sharia jàngalee ni nu ko yonente bi sallallahu alayhi wa sallam jàngalee daanaka du xaw a tàqali ko nit ki looy def lu nekk am na loo war booy lekk sax am na looy wax boo ba noppi am na looy wax booy naan am na looy wax ba noppi am na looy wax kon tudd yàlla bàyyiwul fenn lu bari nag ci nit ñi tudd yàlla moom dañuy fàtte ne ak jaamu yàlla dañoo defe nag léemaay la dëgg la jaamu yàlla bu nekk léemaay la ndax kaaraange la waaye li ko tax a jóg dëgg dëgg ñu bindal la tuyaaba boo xam ne bu ëllëgee dañ la koy fay kon loolu mooy zikr zikr ak jaamu yàlla la boo xam ne ni ngay jullee di ca séentu tuyaaba noona ngay tudde yàlla ngir di ca séentu tuyaaba baat yi nga xam ne moom la ñuy tudde yàlla nit mun koo fental boppam dégg faw ci sharia rek la mën a jóge alquran moo ko war a mën a indi wala yonente bi sallallahu alayhi wa indi ko na nga koy defee itam moom moo la ko man a jàngal bu dee ab lim moo lay wax lim ba bu dee place moo naan lii place sàngam lañ koy waxe bu fekkee jamono la moo naan lii ci jamono ji lañ koy waxe waaye ku fétal ci foofu rek da daal di juum moom amul fétal baat sax bul ko ca dolli na nga ko jànge noona ni ngay jànge alxuraan bi doo ca dolli baat zikrullahi noonu nga koy jànge doo ca dolli baat moo tax euh, kenn nit dafa tisli fi Abdullah ibn Mas'ud ne alhamdulilah rabbil alamina wasalaatu wasalaamu ala rasulillah Abdullah ibn Mas'ud wax ko kàddu goo xam ne bu ñu ko doon firi ci wolof mooy tolloog tëw tëw mooy ŋàññi li muy wax lu mu doon kooku gestu ne ko ah, man di tudd yàlla julli ci yonent bi rek laa def mu ko nun ñii day dañuy tudd yàlla di julli ci yonent bi waaye nii nga ko waxee jàngale wuñu kon tënku mënta ñàkk foofu lañ la jàngal foofu alhamdulilah foofu nga war a yem waaye nag bul ca dolli leneen ànd ak ne loola lu baax la moo tax lënt mi am foofu mooy léeg-léeg nga dégg ko ne ñii moom nit day tudd yàlla astaghfirullah wala subhanallah wala alhamdulilah ñi di ko weddi ñooñu luñ bëgg dañu bañ ko tudd yàlla kenn bañul ko tudd yàlla waaye li ñuy bañ mooy nga def lu bokkul ak yonente bi sallallahu alayhi bi daa am lu doon tuddee noonu lañ bëgg nit ña defe noonu lu dul loola da nga yàqal sa nit daa ñëw ci Omar ibn julli suba ba noppi di julli rek di sëlmal di julli di sëlmal mu woo ko ba mu ñëw jël yar ba dóor ko mu ne ko léegi ndax danga may dóor ci julli mu ne ko déedéet lakin ni adribu ko ala xilaafi sunna dóoruma la ci julli waaye ci jooyoog sunna ci laa lay dóor kon bunta gi foofu bu sew boo xam ne ñu bari xàmmee wuñ ko buñ jéggee koo xam ne ñëw ne waxal waxal subhanallah téeméeri yoon waxal alhamdulilah fanweeri yoon waxal nangam jox la ay limi boppam yoo xam ne moo la ko jox nga ñëw ne déet du noonu de ñu ne kii kon day tere ku tudd yàlla noonu lañ di dégg fekk tere woo ku yàlla waaye da nga ne julli la taxoon sañoo julli tisbaar gi nga def ko juróomi rakka julli suba gi nga def ko ñeent boobu takkusaan gi nga def ko fukk ànd ak la xel doon nangu mooy lu mu gën a bari daa war a gën a baax hmm? defe naa ne bu fekkee ab yoolam fukki rakkaa la boo jullee ñeenti rakkaa kon am nga ñeent fukk kon kay boo jullee juróom nag léegi da ngaa war a juróom fukk boroom xam-xam yépp dëppoo nañu boo ko defee juróom nag far yàqu na lépp yàqu na far lu tax mooy yonente bi salaatu wasalaam jàngalewut loolu jaamu yàlla yépp nag noonu la lam doon boo ca soppee dara ci buntu jaamu yàlla yàq na comme ni nga yàq julli gi nga julli juróomi rakkaa kon loolu faaw ñu bàyyi ko xel daal ci borom xam-xam ñu jàngal leen lu ci buntu boobu amma lu aju ci ay téere yoo xam ne warees na ci mën a jàll pour xam siiru saalixiin li ci jëkk mooy siiratu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam téere yu bare bare bare bind nañ ko ci siiratu yonente bi alayhi salaatu wasalaam siiratu ibn Hisham ak mboolem la ca fàqe ci ay téere yoo xam ne bind nañ ko gannaaw dundu yonente bi dañ ko bind bind boo xam ne yëmul sax ci téere siira yi waaye téere shamail ci boppam dañ lay melal sax jëmmi yonent bi sallallahu alayhi wasallam ak meloon bàyyiwuñ dara dara ci ak dundam ba tax na ki koy jàng day mel na dafa jàkkaarloo yonent bi sallallahu alayhi wasallam ci wàllu kon koo xam ne bàyyiwuñ dara ci moom léppam lañ leeral kon jullit bi li jaaru rek mooy dellu ci téere siira yi nga xam ne duñ jeex euh, borom xam-xam yu mujj yi am na ci bari ñoo xam ne taalif nañ ay téere yoo xam ne dañoo tànn li gën a wér ci bu docteur akram diyaa ul umari ci téere yu baax yi ci la bokk bu cheikh muqbil alwaadi'i aydan euh, rahmatullahi alayhi euh, ci téere yi am solo ci bunt boobu ci la bokk boo ñëwee ci siyaru saalixiin nag jàpp naa ne bokk na ci téere yi gën a dajale boroom xam-xam yu baax yi yu jub yi yi nga xam ne ay royukaay lañ ak seeni jaar-jaar euh, ñaari téere tazkira ñoom ñëpp alxaafizu zahabi moo moo leen bind ki ñu tudd mu arrifu ahli sunna am na téere bu ñu wax tadkiratul xuffaar ay boromi xam-xam la ca dajale ak nit yi diine ñu baax yoo xam ne nit yi yàlla yu jub yu baax yu tamit siraatul mustaqim seen dund la cay wax la ca nekk ci ay jàngat yoo xam ne doomu aadama ji mën na caa xamee mën na caa yaru kenn xamul boo ñëwee ci téere boobu ñu wax tadkiratul xuffaar ca muqaddima ba ba mu koy leeral daf ne bi muy wastu ñooñu nga xam ne ñoom la ci nar a waxal daf ne haulaa alladina laa araahu illa fi kitaab aw taxta turaab haulaa alladina laa araahum illa fi kitaab aw taxta turaab nee na yii melokaan mooy ñoo xam ne ci téere dong mu laa leen di gis wala boog xanaa ñu denc leen nga mën ne bàmmeel baa ngi nii fi liñ ko denc waaye day mel ni ñu mel noonu ci jamono doxatuñ ci kaw suuf waaye ña nga yor melokaan yoo xam ne rek doomu aadama mën na koo jàng mën na caa jëriñoo téere bi ñu wax si yaru alamin bala noonu la mel moom itam la ca nekk ci ay eh, biographie nit ñu baax bari na lool waxuma dara waaye commentaire yam cay def moom Zahabi ci boppam rek am njàngale la moo xam ne nit ki da ciy jariñ njariñ loo xam ne kenn xamul nu mu toll yàlla na yàlla jàpp dala lool am naa ci nga xam ne dafay jàpp ne dafay ŋàññi Abu Bakar Siddiq radiallahu taala anhu kooku ñu ngi koy ñaanal yàlla mu gindi ko ndax Abu Bakar doon na koo xam ne bokk na ci ñi nga xam ne pas pasu jullit la ne moom wàcce na bagaasam ca ajana ba noppi ma nga ajana kooku moom amatul problème fii moom ku nar a am problème ci sababam nag yow yaa mat a yërëm ndax bu fekkee kay wax loolu ku gëm yonent bi sallallahu alayhi wa ku gëm yonent bi la yonent bi moo ne Abu Bakrin fil janna loolu mooy xadis bu wér ñeenti xulafaa yooyu ak fukk yi kenn ku ci nekk lim na la jaar ci sawtu netil sàngam ma nga àjjana nga xam ne yow ni nga gëme ne àjjana am na noonu nga war a gëme ne abubakar ci boppam ma nga àjjana soo ci amee benn sikk sàkk sa pas-pas yàqu kon kooka tuub moo ko waral moo ko war yërëm ko lañu war a def ci lu dul di dugg moom ci ay falsafa ak laa tax sa nag lu mel noonu na xam ne na xam ne xusn ci bopp muy njàqare ñaar la am na jàqare boo xam ne jàqare adduna am na jàqare boo xam ne jàqare àllaaxira eh, bu fekkee ne nit ki mucc na ci njàqareel àllaaxira itam du tee dana tiit ci njàqareel àdduna yonent yàlla yi sax dañ doon tiit Muusa alayhi ci boppam ragal na ba alxuraan waxal ko loolu kon tiit ak ragal ci bindu doomu aadama fii ci kaw suuf ci la bokk ku la wax ne wàllu yi ci boppam du tiit kooka xamul luy wàllu yi ci àdduna wàll yi day tiit fii ci àdduna day ragal yi doomu aadama war ragal yëpp day ragal gaynde day ragal xaj day ragal day kenn ku ci nekk la yàlla dogal nga di ko ragal kon muqaddima ba ca boppam moo baaxut la muy wax naan eh, wàllu yu tiit te Abubakar tiit na kon Abubakar du wàllu wax jooju moo yàq maanaam wàllu day tiit loolu ci boppam loolu la war a su ko defee la tegu ci muqaddima booba lépp day daal di wa sallallahu wa sallam ala nabiyina muhammad jërëjëf dafa naa leer na nañ léegi Omar euh, Thioune la ñuy jox ndax liñ ci tegoon mooy euh, responsable moo waroon ñëw gërëm nit ñi ngërëmaate yi xam naa moom la ñuy mujj euh, dama dama jàpp ne tafsir Moussa Gassama man sañ naa ci sama diggante ak moom ne ko taalif bi damay ragal mu bañ a dugg ci thème bi bu fekkee daal ci istiqaama la woon xel wax bu fekkee duggul ci thème bi damay bañ li ma doon wax naxal naxal bi bañ ci am bu fekkee duggul ci thème bi ñu bàyyi ko ba beneen yoon waaw léegi moom da da damay wax ne euh, thème bi comme ni ñu ko doon waxee ci istiqaama rek lañ ko doon euh, waxee euh, laaj yi laaj Muhammad tafsir nag moom ci thème bi la Cheikh bismillah ñëwal waa kaay salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu Cheikh Ahmad ñun dañoo kontaan lool lool lool lool lool yaakaaroon nañu bii thème bi dina am solo ndax ci liñ ko nar a def waaye nag ci façon bi nga ko traité itam ci la ñu gën a kontaan waxuma thème di nga jox rek waaye danga nga joxe ay jàngale joxe ay orientation pour ndaw ñi ak mag ñi nit ñi lañ soxla soxla wu ñu bàyyi may soxla wu ñu garab yi yoot nit ñi ba yóbbu leen ci yoonu yàlla moo ko dàq leen ñu dem loolu nañ ko bàyyi xel bu baax a baax te loolu jàng dana ko def waaye jàng bu ànd ak xàmmee xamal te ràññee xam ak ràññee la dee fi juboo ku nit ku ràññeewu la ku yàq ñoo yemi mbir ku gindi koo mën a gindiw nit ku gindi ku wul du gindi kenn ku gumbay gindi doo awi ngir xam ngeen ni nii ñëwee nii tey bi ngir jëmmi kii ak thème bi yéen a gën a xam ne ñi fi ñëw ñëpp bokk ñi ci mbootaayu euh, euh, euh, sa ki Ibrahima gii gay mi waaye nag diine leen tax a ñëw loolu nag li ñuy jàngale mooy li ñuy jàngale mooy la ma sama góor ga waxoon ñu dem Dakar ba toll ci station bii muy jël essence ma ja ma ci di julli ma pare mu ne waa yow nu nu yàkkam di ngay julli ma ne ko dama gis waxtu jot rek dama gis ni jot mën naa fi xaj na fi mooy ñun dundul ay jullit man ko lu ma ci xam saa gos laa xam muy ma yow loo doon man ko lu ma doon lu mel nan muy ma xam ab murid nga man ko déedéet loo doon tijaan la doy mun na kon loo doon dara man ko sawaay ah, yow doo dara foo jëm muy ma ndakaaru man ko dañoo oto yi jógee ndakaaru mun ma xam ah, man ko loo bëgg da ngaa bëgg foo jëm fa la ñëpp jublu yàlla sax amu ko su ko neexoon mu am ko adduna bi juróom-ñaari milliards nit a fi dëkk juróomi yëpp duñu ay jullit ñaari yi ci doon ay jullit sax ñëpp jaaruñ ci yoonu yàlla ñoom ca war a jaare te te yàlla da leen fay bàyyi ma ko loolu na ko teel a xam moo tax ma ne nag indil ta am loxoy kajoor day wees sa maam ba tey ku jël da ngay delloo ku indi ku ne war nga ni am waaye kenn amul droit naan indi indi indi indi ñëw leen ñëw leen te doo wuy ji loolu lañ ko ci jàng rek nanu gën a ba seet nanu gën a tuumaal sunu bopp suñuy jikko bala nuy tuumaal keneen seet salbiyaat yi nit ñi war sa doon sa paal ijaabiyaat yi seel ko salbiyaat yi baal ak mbaa ak mbaax jiitu mbon ak mbon lëf la lu gaar boo ko fortoo mu set boo ko bàyyee mu saal ñun nag dama ne woon jullit ñoom nag ñun ñun li nu boole boo ko dee seet doo gis ñeneen ñu mu boole sunu buur benn sunu yónneen téere bépp benn sunu jullee koor añ a neel asakaat benn rikk buñ jël l'islam bi def ko ni tong tong ku ne jël nar dem fuuyu mbaa te ñu bon bon mbaa garab bopp ku nekk day tong ci ak tar mooy seen naa siire bàyyi law ba muy góor loolu moo dal julli ci àdduna bi fi mu ne seddale ko ku ne yoon ak tar bu garab gi daanu ñëpp daanu kon euh, docteur kontaan nañu lool lool lool kese bi jariñu wallahi bu du woon a conférence bi nagari ma fekk fii ci kees gii bu ko yàlla dogalee waaye conférence bi moo tax yàlla yàlla guddal sa fan yàlla yàlla yokk sa xam-xam waaye li nga wax yàlla na ko yàlla jégaloo ñu ñëpp asalaamaaleykum wa rahmatullah jërëjëf sir kon defe naa ne dañu euh, bëggoon bala ñuy nodd xam ngeen cinq minutes daanaka mooy ci des ñu mën a jeexal pour bañ a euh, gàllankoor mbiru waa jàkk ji kon Omar Thioune moo yore daawa ci mbooloo mi moom mooy mooy jël kàddoom léegi kàddu bu gàtt lay doon bismillahi rahmani rahim wa sallallahu wa sallama ala ashrafil mursalin wa alihi wa sahabatihi ajmain xam naa ne ñu wax ni dañoo bokk ci lajnatu daawati wal irshad waaye ki ko jiite mooy Cheikh Abdoulahi Baba ñun ay ndongaam lañu moom la ñuy liggéeyal ñu ngi sant Cheikh Mouhamed xafidahu llah wa raahu yàlla na ko yàlla fay wax dëgg yàlla thème bi joxe na ko ca mu gën a rafete waaye ñu ngi fàttali mbokk yi rek ni jubluwaay daarul istiqaama mooy tasaare xam-xam ak daawal islaamiya saaliha ak sahiha loolu rek mooy seen jubluwaay du ñu am mbooloo moo xam ne dañu tënk seen bopp ci yeneen waaye ci jàng ak jàngale ak tas tas daawa bi ci la bopp kon képp koo xamante ni muhaadara boo xamante ni waa daarul istiqaama ñoo koy taxawal wala ay dawaraat yu demee noonu am nga ci yitte mën ngaa jokkoo lajnatu daawati wal irshad insha allah dinañ ko tansiq ndax muhaadara bi bokk na ci alxutta sanawiya bi nga xamante ni da lajnatu al daawati wal irshad ñoo ko tëraloon ak yeneen yoo xam ne dañ ko def ci biir réew mi yéen yi dellu ci ay muhaadaraat ci des dellu ci ay dawaraat ci takwinul al aima wa tatwiru adaihim loolu lépp daarul istiqaama ñu ngi koy def képp koo xam ne daal bëgg ko sa gox kooku mën ngaa jokkoo ak lajnatu daawat wal irshad fii ci waa Thiès nag man yàlla nattu na ma ma bokk ci ñi leen fi toogal kon xam naa ne bu dee am na lenn lu ñu joxe loolu la wallahu subhanahu wa taala aalam wa raddul ilmi ilay aslamu asalaamaaleykum wa rahmatullah aleykum salaam jërëjëf